onze billahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñeenti nit ñi yowoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di rafet seen ànd ak rajo télévision wala fajri rawatina seen émission diine ak jamono tey ñu fas yéene waxtaan ak mbiru koppar ndax ah, mbiru koom jëm ci wàllu francais CFA franc CFA nag ku nekk ci réew mi wala ci Afrique de l'Ouest bi dégg nga ñu koy tudd ndax ay réew yu bëri ñoo koy jëfandikoo ci wàllu xaalis xaalis boobu nag ñu ne France moo ñu koy garantir ba itam ñu mën a bokk ci lu aju ci njaay ak njënd ci bitim réew loolu itam nag jóge ca franc français ba ci euro tey waaye itam ñu toll foo xamante ne tey nit ñu bëri ay kilifa sax yoo xamante ne loolu dafa màcc ci seen yi ñuy saytu nee nañu franc CFA daal baaxul ci Afrique wala boog bokk na ci li ko lor bokk ci vice président conseil italien bu ci mujj dem ci France ne leen nag itam franc CFA tax na ba euh, Afrique di gën di ndool tax na itam Afrique yi di daw di wut si tugal te mu waral immigration boobu loolu nag indi fa débat boo xamante ne daf ko faa fekk sax yokk ko. ndax gis nañ ne bu yàggul rek ay président yu bëri jokk nañu yëkkati seen kàddu ne daal francais CFA jot nañu génn ci te ca gannaaw gisoon nañ ku mel ni Kadhafi ne taxawaloon na sax lu ñu duppee banque centrale de l'Afrique nga xamante ne dafa naroon nag dajale réewu Afrique yu bëri te jotoon na ci itam génnee sax alal ju bëree bëri ngir tàmbale ko loolu itam mujjul antu ñu nekk ci diggante boo xamante ne tey coow li mooy ana njëriñu franc CFA ci réew yi koy jëfandikoo digganteem ak ni ko France di garantir ndax itam dañ loolu boo ko seetee itam am na lu ñu France di jëriñ ci fànn woowu waaye itam dañu yaakaaroon ne bu ñu demalee seen bopp am na leneen loo xam mën nañ ko gañe ndax mbir mi noonu rek la demee ndax itam science su xaalis ak itam tëgg ko ak liggéey ko ak jëfandikoo ko dafa laaj euh, itam kattan ak doole ci wàllu production ci wàllu mën sa bopp loolu yëpp boo dajalee ci wàllu koom lan la yokk Afrique ak lan la wàññi Afrique loolu lañ bëgg a xam tey ak ñoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu euh, économie comme googu nga xam moom la ñu waxtaanee bokk na ci kii di Youssou Diallo Youssou jalo di économiste nekki itam président club Sénégal émergent Youssou Diallo maa ngi lay nuyu. Mm, jërëjëf euh, kii Ousmane. Mm-hmm. Eh, ngeen baal ma ma ma ma ma leen. parce que bi Sidi làqoo ba léegi defe naa jotuma fi ñëw. Eh, maa ngi leen koy jaale di ñaan yàlla mu xare ko ajana eh, yi gën a kawe mu teg loxoom ci njaboot gi mais surtout eh, héritage am nga xam ne li ci gën a fës mooy wal fajri yàlla sàmm wal fajri ba li ñuy séntu ci moom ñu àgg ci amiin jërëjëf maa ngi fii ak économiste Meissa Babou di enseignant chercheur université Cheikh Anta Diop de Dakar Meissa Babou maa ngi leen nuyu Ousmane maa ngi lay fay baax xam naa njaami naa ci dikkaat après jërëjëf maa ngi nii di nuyu itam ah, Magaye Gaye nekk économiste ngeen miin ko suñ plateau Magaye Gaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi. Mhm. monsieur Sagna monsieur may Maysa mhm. moom xam naa ko bu yàgg. Mhm. Ah, yéen a mbokk bi voilà exactement jërëjëf Bawol aussi en même temps. Magaye Gaye <laughs> Guy Marius Sagna France de gaz Guy Marius Sagna maa ngi lay nuyu. Ousmane maa ngi lay fay. Euh, di la nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. ak mboolem soppe Walfadjri rawatina. ñi si taamu euh, émission diine ak jamono. Mhm. jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant di leen gërëm ci ni ngeen ñëwee wuyu suñu suñ plateau su Diallo ñu gis ne débat franc CFA yàgg na fi waaye itam euh, at yi mujj wala weer yi mujj ni mu ci amee doole jaaxal na ñu bari ndax dañ ne lu tax nga mi jékki-jékki rek encore sulleekuwaat nii ba nga xam ne mel na ni daal Afrique dafa mel ni ñu bëgg a fippu wutu mën a jéem a seetiwaat fu ñu mënee seen bopp ci wàllu euh, koom. ndax gis nañu ne ku mel ni Mamadou Koulibaly nekkoon président assemblée nationale bu Côte d'Ivoire moom nee na sax c'est une escroquerie morale maanaam daal loolu nekkul loo xam ne xel mën na kaa nangu ku mel ni nag euh, président Côte d'Ivoire actuel Ouattara nee na moom euh, mën na nekk loo xamante ne lu dëppoo la ak li war a euh, yokk Afrique wala mu may ko yokkute loolu diggante ñaari débat yooyu fan la ci xel mën a jàpp ne tey am na lu ñu mën a def ba Afrique demal boppam wala am na lu mën a def ba yëf yi soppeeku ni muy doxee. waaw jërëjëf Ousmane. Eh, débat bu am solo la parce que def naa doorul léegi sax parce que maa ngi fàttaliku ñu ñi bi ñu nekkee à la fac ci début année quatre-vingt yi Mokhtar Diouf moo doon sunu professeur d'économie politique e affaire franc CFA et eh, le compte d'opération affaire réserve yi ak yooyu et ñooñu ca jamono jooju et wane woon nañ ni ñoom d'accorduñ ci lool lu ñu war génn la parce que euh, du ñu yóbbu fen euh, kooku moom defe naa ni moom euh, ba léegi defe naa la mu doon wax lay wax e je me rappelle ñun ñi booba ay jeunes nañu révolutionnaire donc di diriger étudiants yi et à l'époque thèse yooyu surtout booba fekk na ajustement structurel yi door mm-hmm. et defe naa booba sax banque mondiale daan na wax dëkk bu mel na Côte d'Ivoire mm-hmm. war na am monnaie boppam mm-hmm. ni li tax mu war am monnaie boppam parce que am na capacité d'exportation boo xam ni war na ko permettre mu mën a am ne boppam mm-hmm. ba yenn institution d'intégration yi sax daf ci waroon a génn te defe naa ne booba ñi doon xëy na favoriser loolu mm-hmm. defe naa actuel président Côte d'Ivoire bi mm-hmm. ci ñooñu la bokkoon voilà donc euh, mu lay wan ni la euh, débat la boo xam ni bu am solo la Eh, jeunes africain bi tey jii e ñoom Guy Marius maa ngi leen di maa ngi leen di gërëm parce que ay ay ay jeunes révolutionnaires lañu parce que noonu lañ leen mën tuddee mhm. et ñun ñi xam nga boo amee yenn cursus yi waaw boo gisee ay jeunes yoo xam ni ñu ngi ci yenn perspective yi mhm. eh, daf lay fàttali sa bopp te da nga koy xaw dangay rafet lu seen taxawaay mhm. parce que gis loo xam ne xëy na d'accord ci mu jaral la xëy na nga mën a dugg kaso mu jaral la nga mën tëdd ci mbedd mi Eh, di wax bés bu nekk nga nekk ci di jóg di dal toog di dal eh, loolu lu lu am solo la mm-hmm. eh, biñ koy door di wax nag ñoom ñi ci jamono yi passé defoon nañ ne xëy na ay waxu quelques activistes la woon mm-hmm. mais léegi dafa mel na mbir mi dafa amplifié wu ba nga xam ni d'abord au niveau des économistes au niveau des élites mm-hmm. ci hommes politiques yi mais léegi dafa law ba ci dëkk tubaab yi parce que le vice premier ministre italien et argument yi mu génne joxe ko et argumenté d'une façon boo xam ni li ma ci jaaxal deer boobu ba léegi dégguma France mu réagir euh, ne serait que sur le plan théorique mm-hmm. wala sur le plan technique pour wane ni waa ji en fait li mu wax taxawul mm-hmm. parce que moom dafa wane ni daal Afrique bu fekkee tey jii surtout Afrique bi nga xam ne mooy Afrique francophone nga xam ne tey jii xëy na li ëpp ci ñuy ñëw ci ci euh, ñooy jël bateau yi. Mhm. fa la ñuy jógee di ñëw foofu. Mhm. et bu nuy ñëw foofu xëy na c'est parce que euh, y a mal développement. Mhm. et ci mal développement boobu nag mu lëkkale ka ak franc fa xëy na peut-être kooku benn yoon la benn gis-gis la xëy na daañ ci dellu si ci biir waxtaan bi. et beneen bi aussi mooy euh, ndaw ñi parce que xam nga. boo dundee sa jamono boo bëggee say doom dund sa jamono comme yow ni nga ko dundee woon et eh, ñàkk am gis-gis ci ni àddina wala ful yow day wax ne eh, niru jam niru sa baay jamono moo ko gën te tey ji ndaw ñi eh, ay la am na yoo xam ne daa atuñ ci mhm, ci muy ndaw yi nekk ci nekk fii mhm. comme ndaw yi nga xam ne sax tey ji ñoo nekk ci dëkk tubaab yi mhm, bon daal boo koy xool tey ji et eh, d' accord ci franc CFA wala ñàkk ci d' accord eh, dafay xaw wane ni daal xëy na franc CFA bu amee bakkan aussi gaw ni bakkan bi ci nii mu demee nii dana gudd dana gudd waaw léegi nag euh, buñ ciy dem parce que wax ji dootul ndax war nañu génn ci CFA wala waruñu ci toog waaye wax ji mooy kañ lañ ci génn. kañ lañ ciy génn ak naka lañ ciy génn. naka lañ ci génn waaw defe naa wax ji man euh, gis-gis bi lool la. kañ lañ ciy génn ak naka lañ ciy génn. voilà Youssou Diallo. may sa baabu kañ lañ ciy génn ak naka lañ ciy génne hmm. ay xalaat yu bari di jib ndax euh, ni ko Youssou jalo waxee hmm. ci ay réew yu bëri yëkkati woon nañ ko. Hmm. ku mel ni Kadhafi xam nga jamono yi presque kenn la waxoon ne banque bi dee taxaw ba pare woon na indi réserve yu am solo yoo xam ne moom la koy tàmbalee ñu toll tey ji encore débat bi di yéeg mais ñu gis ne débat yu mel nii dañ fiy jóg di dem mais ña ko yëkkati bu ñu toogee wala ñu bàyyi rek yëf yi fay est ce que jàpp nga ne tey ji franc CFA am na avenir bu gudd ci espace u Afrique bi nga xam ne fii la samp baax. waaw Ousmane ma sant la bu baax ci invitation bi eh, feddali suma coloré ak eh, gi eh, sama grand gay mm-hmm. ak suma goro monsieur Diallo <laughs> di profité parce que boobu léegi ñëw moo fii mhm. te xam man Walfadjri yi eh, dama ko yore lu bëree bëri mhm. c'est Walfadjri qui m'a révélé mhm. nit da ngay eh, da ngay da ngay am colère si li mënu ko fay daf ma dégg rajo man a xale yi ba waxee na xamu xamuma may def ay concept dañ doon définir rek lan mooy croissance chaque chaque mardi la woon je crois à rajo lan mooy balance de commercial yu yu mhm. sexuel yooyu waaw jargon économique voilà jargon économique loolu tuddoon mhm. defe naa après xam naa mu dégg ma invité ma benn diine jamono booba léegi il m'a pas lâché ba pare ne su ma bëggee wax ci koom Sénégal indi leen ma may sabab mhm. ndax moom kat moo may wax marché Touba lu fa xew c'est important moom koy wax marché HLM yoo xam nga li may wax donc <laughs> loolu mooy li nga xam ne loolu laa tuddee ne il m'a révélé au monde ah yàlla defal ko sutura ci loolu man it yàlla def ma ci sutura mm-hmm. ba tey ba biti réew mm-hmm. damay damay wax ci rajo damay wax ci télé mm-hmm. kon ma sant ko gërëm ko ah di leen ko jaale parce que keroog ba ma demee hôpital principal ma taseek euh, Serigne Assane bañ ñu bañ ma gisee dañ ne ma non yow moom dañ lay jaale ma ne leen non leen man maay jaale ñu ne la ñu jaale kon uh-huh. dañu sori woon te ce jour sama téléphone fayut chaque deux trois minutes woo nañ ma Italie États-Unis àddina bépp dima ko jaabi mhm. man après finalement ça la sentir ma ne mais attends man c'est comme si man si di mooy sama ndey mooy sama baay mhm. génn àddina nit ñi xam nañ diggante bi am mhm. loolu ma wax dëgg yàlla fale ma wax ko defoon naa benn audio ci whatsapp yi partagé ko ak mes groupes ak panel yëpp feddale rek kóllëre boobu fan tëdd yàlla na ko euh, yàlla xare àjjana amiin te defal leen taw feex yéen aussi parce que kër gi comme ne ko grand Youssou waxee léegi yàlla na ci yàlla def sutura daal amiin accord léegi nag euh, je pense que la question mhm. euh, c' était ëllëgu franc ci Afrique bi nga xam ne tàmbali nañu joxoñ ne daal bokk na ci li koy ndoolal wala li koy gën sonal. waaw xam nga joxoñ bi mhm. am na ay africain ñoom gi ñoom Kenny Seba mhm. ay groupe ak ay intellectuel yoo xam ne nii dañoo joxoñoo ne lii am na problème mhm. am ñeneen africain yu ne baax na ñooñu ñu leen ñun sunu maas gën a baaxut ñu ne xëy na ñeede dañoo xaw a ragal ndax xam nga euh, dugg ci lu bees mhm. euh, muy alternance même même changer produit alternance la alternance boobu ñu bëri ñu ko ragal ndax dañ naan xëy na duñ feex lii ma téye ko su néew xaw ma la may fekk fële. Mm-hmm. mais da ñàkk chance la ci bañ a essayer. kon ñi nga xam ne dañ ci bëgg a parce que fi ne nii xëy na nee nañ ñu ngi ci jàmm euh, avantage yañ ca gis dañoo mesure conséquences yi. Mm-hmm. te am na ci ay intellectuels yoo xam ne li ma d'accordul ak ñoom mooy li ñu tudd analyse comparative maanaam dañuy jël suñ CFA bi daal di xool agrégat économique yi. daal di koy bëgg nattale ak Ghana bëgg ko nattale ak kii ne kii rawuñu kii rawuñu kon baax na hmm. mais non suuf fekkente ne baax na kenn waxul ne baaxul ndax hmm. monnaie bi mi ngi mi ngi mi ngi ñu ngi ciy def mais lu gën am na voilà ci ëpp solo ñu ngi koy def mooy échange hmm. mais la suuf te te te nit ñi mënuñ ko gis il faut nga nekk spécialiste pour comprendre la nga xam ne perte bu rëy rëy rëy la loolu mooy problème bi ndax tey soo xoolee sunu xaaju xaalis ci ñun ñu bokk ci CFA bi ma nga tëdd France ci seen banque ba mm. daanaka kon moom mooy alimenté sax réewu France mm. moom moo téye koomu France ñoom tubaab yi italien yi sax barki dem wax nañ ko moom la yus doon rappelé léegi mm. kon foofu problème la mais la gën a nekk problème mooy xaalis ñaari rôle yooyu lu gën a mën a joué bi ci njëkk mooy ñu jënd ak jaay échange ñu ngi koy def kooku xëy na xaalis bi mën na ko mais li nga xam ne tey sunu xaalis da ko war la woon ak ñun te defu ko mooy euh, la nga xam ne sax mooy mooy mooy kéem dëgg dëgg dëgg mooy le financement de l'économie ndax tey alal euh, xaalis su fekkente ne financé wul koom te su mën a koom bi mooy man ma soxla xaalis ñu yombalal ma ko ma leb ko entreprise bi liggéey soxla xaalis ñu yombalal ko ko mm-hmm. mais tey xaa foofa lañ poñe foofu la France tey xamul tax. Hmm. parce que dafa bëgg sécuriser xaalis bi ne su ma su ma leen bàyyee ngeen def man ne may def France ak xaalisam. Hmm. Amérique di ko def ak xaalisam. nee dañu am inflation wala dañuy nangam sàngam ba nga xam ne tey sooy xool vingt trois vingt cinq pour hmm. mooy presque financement euh, économie bi. ci loo xam ne ni alal jooju moo waroon na yoru moo moo moo mën a neexal dëkk bi tey. entreprise PME yi ñuy wax yu ndaw yi mais soxla nañ kenn ku nekk cent millions deux cent millions ñenn ñi sax cinquante millions mais ko jot man def naa ci benn étude ak Union européenne ak suma ay quelques partenaires mais on avait vu que ne entreprise yooyu yëpp ñu ngay gis noonu seen dono baay la moo leen di financé seen i xarit ay tontine mais kenn ñi mu ci dem banque parce que banque yooyu dañ koo poñee ci li ñuy wax le taux directeur cest à que liberté bi ñu war a am ñun en tant que banque BCEAO nga xam ne France ak Amérique su seen koom dëgëree dañuy dem ba zéro seen taux directeur bi nga xam ne saa yow deux pour cent mën nañ la ko lebal ci entreprise wala ñu lebal la ko ci yow nga jënd ko kër wala nga jënd ko oto loola mooy manquement yi nga xam ne dafa dafa diis léegi nag yàlla def na sutura ci fan yi tubaab yi seen bopp ñoom ñoo mel ni ñoo jëfur léegi ñoom ñoo taxaw ne yéen africains yi France mi ngi leen di ndax yéen a ngi bëgg a dee Mm-hmm. Russie wax na ko Allemagne wax na ko itali wax na ko ca biir France ñoom Marie Le Pen wax nañ ko mm-hmm. kon nag li tubaab di wax le début de la fin mm-hmm. man damaa jàpp ne daaw amoon na africain yi réunion buñ amaloon ba ne dañuy teg monnaie bi deux mille dix neuf la Côte d'Ivoire waxoon ne moom deux mille dix neuf dana ko démarré bon xaw ma fu ñu ca toll Kadhafi essayé na ko ñu rey ko te loolu taxul ñu rey ko léegi nag est-ce que réunion boobu ñu defoon pour cette monnaie là nga xam ne dessin nañ ko ba pare. Mm-hmm. fayoon nañ ay artistes def nañ appel d'offre xam nañ pièces yi ni muy mel xam nañ bii yi ni muy mel mm-hmm. loola tege na la ca nag léegi volonté politique bi laa jàpp ne bu fekkente ne dafa dëgër mm-hmm. maanaam politiciens yi ragal. da da fa ñu war a fa ñu war a ñu war a jóg mooy la jeunesse. tey ñoom Kenny Seba ñoom Malick Guy Sagna ay ñoom Y'en a bu Sénégal yanaa a bu bu Burkina Y'en a marre bu Côte d'Ivoire parce que cette jeunesse là aussi mhm. ñoom rek ñoo mën a porter actuellement le flambeau mhm. mais politiciens yi nga xam ne tey ñoom dañoo xaw a arrimé torop ci tubaab te mm-hmm. ñemewuñu mm-hmm. ndax bëgguñ xay na leen fekk ci xadaf yi fekk leen ci ñu leen di rey wala ñu leen di sonal mm-hmm. ñooñu gëmën ñu mën a porter combat bi mais il faut que xale yi suñ jógee ñu jàppale leen moi je que c' est le début de la fin xëy na je donne ma langue au chat mais jàpp naa ne fii ñaari at dana toj dana toj waaw dinañ ci dellu soit léegi may sababu Maguette Gueye parce que ci fan woowu nga xam ne dañoo war a jël ay matuwaay waaye itam nag mu am ay mesures yoo xamante ne da ci ànd parce que itam mesure alternative yi moom la nit ñi tiit ndax dina mën a nekk buñ ko tegee ndax dina sotti buñ ko defee ndax dina jàll ci taxawaay boobu nga xamante ni itam am nañu ay bopp yoo xam mën nañ xalaat ci loolu mën nañ ko defar kon euh, recul bi ak yéex-yéex bi ci nekk lan moo ko waral ci wàllu Afrique. maa ngi lay nga présent nga may ma aussi ma présenter samay condoléances au groupe Walfadjri. c'est vrai que jotoon naa ko def jotoon naa woo un peu les principaux responsables. ndax pour ñu ko xamul euh, wal fajri yàlla def na ba da ngeen may faral di invité men mhm. na ñaareel bi mooy même au niveau de la presse mhm. Walf Quotidien ñaare samay euh, contribution yu bari dañ koy diffuser mhm. saa lu ñëw rek dañ ma koy diffuser te loolu maa ngi leen ci gërëm merci alors euh, d'abord nga may ma ma ma commencé wax ni monnaie lu am solo di ci am réew la monnaie xaalis ndax xaw seen public bi ñan ñooñuy seetaan mais ka nekk Touba te jàngul ka nekk Zac Mbao te jotutu xam lan mooy principe économique baax na ñu wax leen un peu. Mm-hmm. gis nga monnaie dafa am solo ci addu ci ci économie. Mm-hmm. réew yi nga gis nii muy réew yu mag yi muy États-Unis muy Chine muy Japon seen monnaie bopp la yor. Mm-hmm. benn ñaareel bi mooy soo seetlee Afrique réew yi nga xam ni ñoo fi ëpp doolee tamit seen monnaie bopp la xoolal Afrique du Sud xoolal Nigéria ah oh, xoolal Ghana et cetera et cetera mm-hmm. alors euh, soo gisee Chine États-Unis mi ngi ko doon attaqué fu nekk naan ko yow de da nga ma bëgg nga wàññi gën a gën a yéegal sa monnaie tuuti mm-hmm. pour nga wan a wàññi exportation yi nga def ci bitim réew mm-hmm. aujourd'hui pour rappel Chine mi ngi ci plus de trois mille milliards de réserves Chine day lebal États-Unis tey jii loolu baax na fàttali baax na fàttali aussi nii mais France bi muy créé cette monnaie là en 1945 mais cinq léegi yàgg na je crois kenn rappelé na ko léegi ça ça fait euh, plus de 70 ans je crois. Mmh. Mmh. mais lan moo taxoon parce que amoon nañ fi benn structure économique boo xam ni mun dañoo organiser de sorte que suñu ceeb ñu ngi ko daan jënd Asie. mais ñu fexe ba suñuy producteur di produire ay gerte di leen ko jaay ñoo yóbbu ko seen i industrie l'économie excentrée. Mm-hmm. bu ñu demee ba xam ni dans quelques années dañu war a dem ñu ni il faut ñu laisser un cordon ombilical boo xam ne moo ñuy rattaché ak ñoom. quoi pour accentuer la domination benn. Mm-hmm. deuxièmement pour faire en sorte que seen objectif yi ñuy am en matière de jënd ak jaay. su jënd suñuy matière première bu mën a doon lu yomb ba pare prix yu yomb ak mone bu stable hmm. mais il y un objectif qui était beaucoup plus important que ça parce que à l'époque mais France yi bu bëggoon mooy am un empire symboliquement France de fukki réew ñeent wër ko mais loolu la ñu bëggoon tey lu bëree bëri wane na ni hmm. tey France bu fekkoon ni ñooñu nekkuñu ci wetam tey franc kenn waxatu ko. Mhm. ndax actuellement soo seetee en terme d' endettement public ñu ngi à plus de deux mille milliards d' euros de dette publique te loolu soo ko amee di wan nag nit ñi naa leen am naa quatorze pays yoo xam ne ñu nga ma suivre lu ma leen wax ñu def mhm. kooku dangay ngay entretenir un peu sa empire mhm. pour bëggoo mu yàgg mooy euh, li ma bëggoon njëkk a préciser man nag dama jàpp ni euh, monnaie bi pour répondre à votre question am na ay rëq-rëq yu bari mais benn bi dama ko situé sur le plan éthique et symbolique parce que quand même moo ne c'est l'expression de la souveraineté nationale dañu waxante dëgg mais le président l'ancien premier ministre Balladur en 1990 France la nekkoon mais il l'avait tellement bien vu que bind na ci benn monde le monde bi ñuy wax ay ay yooyu mu ni la monnaie n'est pas un sujet technique c'est un sujet qui est relatif à la souveraineté d'un pays loolu la bindoon à l'époque dans le monde maanaam moo daal du loo xam ni daal ko jóg dogu ci mbirum souveraineté la mais pourtant quatre ans plus tard bi ñuy dévaluer la nootre monnaie le CFA lu mu wax il nous a semblé que c'était la meilleure solution pour ces pays la maanaam yaa xam ne ñun daal France xam nañ ni lii moo gën ci ñee xoolal fee bañ na ko pour moom mais fii nangu na ko pour ñun mm-hmm. donc pour man il problème de modèle français. Mhm. à côté même de ce qu'on appelle la dévaluation. à côté de ce qu'on appelle la gestion monétaire le franc CFA. Mhm. loolu mooy lu njëkk li. Mhm. ñaareel bi mais il y ay rëq-rëq au plan technique Ousmane. mais Ousmane suñu le nee aujourd'hui la la la parité mais mais sa économiste la ñu bari économistes yi xam nañ ni suñ le lié à une monnaie forte mais souvent day du doog mën bitim réew. mais kooku benn économiste bu gën a ndaw soo ko laajee mu wax la compétitivité prix dafay am benn. deuxièmement mooy gis nga mbirum euh, économie parité boobu soo fekkee ni fixe na day tax ba importation yi war a dugg. day gën a yomb parce que genre subvention lay doon. moo tax ba parité boobu gis nga ba tey dafa yàgg c'est fixe. un franc un euro égal six cent cinquante euh, cinquante cinq virgule neuf cent dafa yàgg te dafa war a fluctuer. deuxième chose. mooy les réserves cinquante pour cent boobu ñu wax kooku tamit c'est technique ñi ñuy seetaan ci gàttal dañ di téeméer bu ngeen jaay bitim réew xaaj ba dafa war a der dem foofu su forme de réserve de change attention nag réserve de change yooyu fay des contrepartie bi day dugg parce que man bokkoon naa ci économistes yi nga xam ni yaakaaroon naa à l'époque ni ah cinquante pour cent yi dafay des euh, c'est une pour l'économie ma bind le gouverneur J'ai écrit au gouverneur et que monsieur le gouverneur je veux vous rencontrer je veux rencontrer vos services parce que man daal am na yu bëri yoo xam ne leerul sama esprit te bëgg naa nga ngeen wax ma ko. Mhm. mu ne ma y' a pas de problème vous venez ma dem effectivement man leen est ce que loolu ju wax ni day des foofu dafay des. ñu ne non non non la contrepartie est recyclée dans l' économie. Mhm. le reste bi fay def c' est ce qu'on appelle des devises la contrepartie monétaire. Mhm. ma ne ko ah c' est très niveau boobu cinquante pour cent mais c'est fixé depuis très longtemps c'est vrai que baissé na de soixante cinq à cinquante mm-hmm. mais aujourd'hui mais sooy garantir que ay risques ngay garantir mm-hmm. amatul risque mais risque yi am na am sax am na mais wàññeeku na mais d'ailleurs France bi nga mm-hmm. xamee ni euro euro benn bi ñu ngi négocier pour que ñu arrimer notre monnaie à l'euro mais France bi ñuy bi ñuy plaider xam nga lan leen wax da leen ni monnaie bi risque de change bi bariwul non on ne sera pas appelé en garantie kooku mi ngi dans les archives mhm. on ne sera pas du tout appelé en garantie waaye ñoom loolu suñ ko xamee ba pare tey au lieu que ñu wàññi cinquante pour cent bi mhm. comme ni ko may soo waxee au moins ñu am des réserves de change mën nañ ko utiliser neneen d' ailleurs j'ai fait des propositions à la BCEAO xam naa ni tout à pour bañ a mën a de mhm. diagnostic mais également les propositions les propositions parce que euh, directeur national BCEAO na Euh, jàpp na ne franc CFA bokk na ci monnaie gën a baax ci Afrique de l'Ouest parce que gis na ne monnaie la boo xamante ne am na parité fixe nga xam ne jàpp nga ne li nga denc ren ba dewen foof nga koy fekk bokkul ak yenn yoo xamante ne day wàcc di yéeg ak wàcc. Guy Marius Sagna ci fan woowu da ngaa jàpp ne mbir mi mbiru politique bu baaxul la wala franc CFA ci boppam mu baaxul ci Afrique. waaw Ousmane euh, dañoo jàpp ne franc CFA. dafa bokk ci jumtuwaay yi nga xam ne moom la ñuy nootee réewu Afrique yi rawatina euh, fukki réew ak juróom mm-hmm. fukki réew ak ñeent boo ci boolee Comores mm-hmm. fukki réew ak juróom euh, yi ko sekk euh, ndaxte ñun suñu analyse mooy Afrique dafa bokk ci gox yoo xam ne ci àddina bi dañ leen di noot mm-hmm. nooteel boo xam ne système moo ko lal muy système capitaliste système capitalisme mooy rongoñu baadoola mooy siim cere buur ngir benn buur am cere bu ñu siim bu doy foog mu am ay millions doomu aadama yoo xam ne dañuy ŋàcc seen rongoñ ak yenn saay seen deret politiku FMI ak Banque mondiale jumtuwaayu nooteel la langue française bi ñuy jàng ci école jumtuwaayu nooteel la base militaire étrangère ci sa réew jumtuwaayu nooteel la ak ñoom seen ak ñoom seen ak franc CFA mm-hmm. bi France di taxawal franc CFA ndaxte du ñun ñoo ko taxawal mm-hmm. bi ko France doon taxawal daf ci amoon njubluwaay comme ni ko Magay waxee mm-hmm. njubluwaayam mooy rongañu doomu Afrique yi di siim cerewam moom réewu France moom entreprise du CAC quarante maanaam entreprise de France ndaxte li am mooy ni ñu mooñee franc fa day yombal importation. Mhm. maanaam marchandise u France ak Union européenne maintenant àddina àddina su yëpp mais jamono jooju marchandise u France pour mu dugg suñuy réew. Mhm. ñun fukki réew ak juróom. Mhm. day daal di yomb. yow boo yóbboo sa marchandise foofu wala feneen. day daal di lamb maanaam du compétitif. dafa am solo ñii di déglu xam ne li ñuy wax du technique wala du technique kase. foog entreprise yi nga xam ne ñoo bokk ci soixante cinq pour cent petites et moyennes entreprises yuy tëj fii Sénégal balaa ñoo am ñetti at et ce sont les chiffres du gouvernement foog ñu xam ne li leen tëjloo franc CFA ci la bokk ndaxte boo amee koppar buy yombal importation mais importation yooyu dañuy dirante mbagg ak yow say entreprise lu ñuy meññal loolu moo waral saa bu ñu sañcee fii Sénégal entreprise petite et moyenne entreprise téeméer boo jël ci PME yooyu balay trois ans juróom-benn fukk ak juróom yi tëj donc patron yi ñuy dégg ñi am petite et moyenne entreprise foog ñu comprendre ne mm-hmm. franc CFA bi ñuy wax du waxu intellectuel mm-hmm. li ñuy dund la mm-hmm. bu ñu buggee ñoom ñu génn ca loola foog ñu soppi maanaam suñu koppar suñu koppar itam ndaw yi ñuy déglu ñu comprendre ne boo gisee Sénégal at bu nekk mu am trois cent mille nouveaux demandeurs d'emploi et état bi condition yu muy réunir trente mille emplois dong la foog ndaw yooyu comprendre ne franc CFA ca la mm-hmm. ñun nag bokkuñu ci ñi nga xam ne dañuy wax naan français CFA moo waral li am mais cala bokk mm-hmm. mu am si euh, maanaam euh, mu am si am solo mm-hmm. donc effectivement ces entreprises bu ñuy tëj mënoo régler mbiru xëy ak gontu maanaam mbiru maanaam mbiru emploi beneen bi may daanelee ci li bon ci franc CFA mooy. Mhm. day def lu ñuy woowee ci nasaraan répression financière moom la may euh, Maysa doon wax sànq. Mhm. ne France bi muy taxawal franc faa donc bëggoon na benn entreprise suñuy réew. Mhm. mën a concurrencer ñoom seen entreprise. bëggoon na ay marchandises am dugg ci lu mu gën a yombee. faagaagal. waaw te du fi fekk mbër bu mën a bëri ak moom mm-hmm. bëggoon na itam suñu benn marchandise dem fekk ko bitim réew mm-hmm. di ko concurrencer mm-hmm. ñetteel bi ngir loolu am foog ni mu mooñee système franc CFA muy def répression financière mooy béykat bu nekk Koungheul mbaa Ranérou mbaa Matam mois de mai wala weeru juin muy rang ba sonn ci buntu banque yeeg ak crédit mutuel yeeg ñoom seen te du am bor wala bu amee bor tuuti la wala bu ñu nekkee téeméer ñu demande mhm. fukk ñoo ci am mhm. wala ñëpp bu ñu amee as tuut la ñuy am mhm. franc CFA moo ko waral mooy répression financière maanaam France système bi da ko defoon pour béykat yi ak patron yi bu ñu am bor bu doy ngir ñu bañ a am capacité bu doy parce que bu ñu amee capacité dañuy am doole te dañuy concurrencer ñoom seen entreprise lii mooy franc CFA kon foog béykat yu nekk ca tund ba ca gox goxaan yi xam ne franc CFA bi mhm. du waxu intellectuel donc mhm. lii ci jan poé mi am nañu ko doon wax fi sànq waa France ak ak ñoom seen ñun bu ñun doomu bu ñu commencé wax franc CFA ñun xaaruñu leen mhm. ci jan poé mi naa ne bokk na ci ñu njëkk am na sax ñu naan ay Ossendé Afana daan na ko wax waaye ci jan poé mi au moins am na livre livre boo xam ne bu mu bind wax ci mbir mi te bokkoon na si lu si doon wax mooy Il convient qu'en Afrique, la monnaie cesse d'être le territoire du tout petit nombre de spécialistes qui jouent aux magiciens. Hmm. maanaam yow émission bi ngeen di def nii dafa am solo. Hmm. dañoo war a démocratiser waxtaanu français fa. Hmm. ñëpp xam ne bala ko. ne ko la monnaie n'est pas une question technique. c'est une question politique. qui tient à l'indépendance et à la souveraineté des États. des États maanaam mbir mi dañoo war a fexe ba jaaykatu gerte bi béykat bi ouvrier bi. xam lan mooy monnaie. la ko ciy gaañ ak na la ciy mën a jëriñ maanaam dafa am impact ci moom. loolu mooy franc CFA mhm. kon franc CFA baaxul. d'accord dinañ ci dellu soir franc CFA baaxul. loolu foog ñu leeral ko bu baax bax baax. dinañ ci ñëwaat léegi Guy Marius Sagna. Youssou Diallo ñu gis ne réew yi jëfandikoo franc CFA yëpp boo leen doon comparé ñoom ñëpp tolloowuñu am na ñu tane am na ñoom astuut am na ñu sonn ñu gis ne aussi temps colonisation boobu nga xam ñu ngi koy wax ci franc bi jaar na fi waaye ñu gis ne plan Marshall itam jaaroon na ca Europe te booba itam fexe nañ ba góorgóorlu ba jógaat kon niñ koy jëfandikoo dafa am jafe-jafe wala boog itam li mu laaj ci ay coppite di ànd ak jamono dañ ko xamul wala dañoo amul moyens yooyu wala lan moo tax ñii dem ñii di des. waaw parce que. <laughs> effectivement parce que bu ñu waxee xaalis rek du du problème bi daal parce que dafa am xaalis boo xam ne day nekk ci biir réew e nit ñi di ko jëflante ñu koy wax une monnaie ko une monnaie national mooy xaalis yi nga xam ni soo bëggee dem bitim réew di ko fa jaay wala nga fay jënd euh, du sotti mm-hmm. am li ñuy wax devise muy boo xam ne dafay dox ci sa biir réew mais aussi boo bëggee jënd wala nga jaay ci bitim réew dafay dox mm-hmm. mu mel na dollar mu mel na euro mu mel na yen mu mel na livre sterling mm-hmm. mu mel na yuan yuan Chine comme chinois effectivement ñoom actuellement c'est presque le premier créancier euh, des États-Unis c'est la Chine waaw hmm. ah, tey jii euh, moo tax lu États-Unis xuloo xuloo ak Chine xuloo ba du sore. Hmm. day teg ndànk suuf. Hmm. voilà danañu jéegante rek waaye am na foo xam ni. du fa àgg. et mbiru CFA bi nag comme ni nga ko waxee. dafa am ñaari approche defe naa africain yëpp d'accord nañ que euh, et puis def économie. que euh, le pouvoir de battre monnaie maanaam buur yi mu war di jëkk def mooy mu am xaalis boo xam ni mooy màndargaal réew mi effectivement c'est un pouvoir souverain réew moo xam ni sa xaalis moomuloo ko complètement en tout cas ci wàllu koom-koom mo mo moom a goo sa bopp ba nga xam ni sax xëy na këyit baak euh, yëpp ña ngi koy defaree ci benn euh, bërëb bu ñàkk solo ci France mm-hmm. euh, dafay xaw doy waar ci réew moo xam ne yaa moom sa bopp euh, ñii nag dañ ni mm-hmm. am na ñu jóge ci CFA ñu ci ëpp en tout cas ci wàllu koom-koom mm-hmm. euh, maanaam dañu dañu mel nañu lajj. ñu dëgteeloo jëlee lu mel ne Guinée wala nga jënd pays réew mu mel na Mali et cetera yu mel noonu gis nañ ni daal euh, amagul réussite et ñu gis ni réew yu nga xam ne aussi des nañ ci CFA am na quand lu ñu am ci wàllu koom-koom mu mel na ay avantages et boo bëggee tukki bëgg ay devises boo bëggee dollar daa ka am boo bëggee euro daa ka am boo bëggee yuan wala yu mel noonu wala yen daa ka am ci lu jafewul kooku nag li ko indi mooy garantie bi euh, euro à travers le trésor français di am pour le CFA gis nañu aussi dëkk yi nga xam ne ñoo amee CFA inflation maanaam yokkub njëg euh, barew fa mhm. gis nañu aussi spéculation ak instabilité sur le plan monétaire amu fa par contre gis nañ yeneen pays africain yi nga xam ne tey jii ñoo ci raw mhm. nga jël lu mel na xëy na Afrique du Sud moom da jël xëy na son passé mhm. colonial ou néocolonial mhm. nga jël par exemple dëkk bu mel na Maurice wala nga dëkk jël dëkk bu mel na Éthiopie wala dëkk bu mel na Nigéria wala dëkk bu mel na Ghana nga gis ne dëkk yooyu tey jii pays africain yi ak wala pays maghrébin yi même Mauritanie bi nekk suñu wet tey jii ak Ouguiya bi Ouguiya ba nañ fàttali que en 72 ñun boobu je me souviens xale ay xale yu ndaw lañu. yow mm-hmm. su ba ñu ne eh Mauritanie dafa soppi dafa soppi xaalis. Mm-hmm. ñun ñu dëkk Ndar xam nga da ngay à partir de Rosso wala même Sal Sal ci mm-hmm. Ndar da ngay jàll rek dem Mauritanie. ñu ne ah léegi de booy booy dem Mauritanie CFA bi dootu fa jaar da ngay obligé wut Ouguiya. en 1972. et la tax Mauritanie defoon ko aussi. mooy booba euh, euh, euh, fer bi feeñ na en Mauritanie. ci lu am solo. Mauritanie aussi ci wàllu pêche bi mu am une capacité d' exportation extraordinaire parce que xaalis comme ni ñu koy waxee ñetti fonction yi euh, mooy fonction unité de compte mooy euh, instrument de transaction mais surtout mooy réserve de valeur et boo nee réserve de valeur nag ci ci wàllu jëflante bitim réew lan lay tekki maanaam boo koy wax ci tubaab mooy pouvoir d' achat vis-à-vis du reste du monde maanaam nga am euh, kattan ci wàllu koom-koom boo xam ni dana tax xëy na mën nga jënd wala nga jëflante ak réew mi nekk sa wet ci loo xam ni mooy li nga bëgg réew nag bu euh, monnaie du loo xam ni lu ñuy décréter la parce que monnaie bien sur instrument de souveraineté la mais c'est pas euh, bien sur même politique mais c'est surtout un instrument de, de instrument de souveraineté économique économique la parce que koom-koom la ñuy wax waxuñu ay jël décret wala yooyu def nangam ak nangam. parce que day loo xam ne boo ci juumee léegi léegi léegi léegi sa réew mën na salfaañu. te da nga war a jëflanteek ñu ci des. da nga war a jëflanteeg ñu ci des. man mi bokk naa ci ni nga xam ni euh, gëm naa ni euh, CFA amatul ëllëg waaye nag amatul ëllëg du loo xam ne da ngay yeewu suba rek nga décréter ko. am na leader politique bu dem France ni man de bu ma bu ma faloo damay génn ci CFA. waaw mhm. ah, kooku defe naa ni eh, eh, xaw na doy waar. Mhm. boo gisee sur le plan d' abord euh, des de partenariat bi Sénégal am ak France du sax loo xam ne réaliste na tey jii. Mhm. parce que loo ci wax wax CFA euh, bi ko France di lawal après indépendance defu ko lu may ngir entreprise française yi nekkoon fii continuer. di am position dominante suñu économie par rapport ak waxuma sax sénégalais yi mais ñi nga xam ni ñooy ay investisseurs di jóge ci yeneen réew bi maanaam am lu mel ne espèce de chasse gardée mhm. parce que am nañu possibilité de transférer librement seen ay seen ay ay ay ay ay bénéfices mhm. am nañu aussi possibilité et contrôler le système bancaire parce que moom mooy mooy financer di refinancer l'économie mm-hmm. réserve de change boobu defe naa quatre-vingt-cinq pour cent yi lañ doon garder foofu mm-hmm. foofu sax am na évolution bu njëkk quinze pour cent lañ lañ dañ daa am ñu ñi léegi dem nañu ba cinquante cinquante donc am na tey ji ay réaménagement yoo xam ne sur le plan technique war nañ ko def mm-hmm. mais surtout war na am un agenda de sortie du franc CFA du boo xam ne dañ koy discuter mhm. avec le partenaire français waxtaan ci ba d'accord ci mhm. parce que mën na loolu mën na am mais mën na am une coopération sur le plan et un partenariat sur le plan monétaire mhm, entre des entités souveraines souveraines entités yooyu nag mën na doon euh, euh, xëy na la CEDEAO mën na doon l'UEMOA ou bien même mën na doon des pays isolément pris parce que tey jii bo amee pétrole mën ko jaay bitim réew nga am de mën ko jaay bitim réew nga am des minerais de de toutes sortes ce tourisme ak yooyu. parce que li tax suñu euh, par exemple tey jii sax dire que suñu réew yi am nañu ay ministre de l'économie et des finances. Mm-hmm. du presque wax joo xam ne jub na lool. Mm-hmm. nous avons plutôt des ministres du budget. parce que instrument monétaire bokkul ci instrument yi nga xam ne dañ koy utiliser dans le domaine de l'économie. de l'économie. soo gisee quelque part man bi dévaluation di ñëw bokk moo ci ñu contre dévaluation. parce à partir d'une dévaluation ti fais un ajustement global de l'économie parce que boo defee ajustement tey jii non seulement taux de change monnaie bi di nga ko mais les coûts même intérieurs mm-hmm. par exemple même salaire yi boo dévaluer par exemple de cinquante pour cent ki nga xam ne dafay indi devise ñëw di investir fii au Sénégal euh, bu fekkee ne xëy na rapport bi c'était de un à à dix dafay nekk de un à vingt mm-hmm. donc en monnaie locale li may fay ci salaire presque wàññeeku na de cinquante pour cent. d'accord. alors que tey jii fii tu es obligé. xëy na avec parité euh, fixe bi ak yooyu. Mhm. de dire que xëy na dama décider léegi di wàññi ay salaire te xam nga kooku tey jii en économie. kenn kenn kenn mënu ko nangu. Mhm. suñu économie amul la flexibilité. Mhm. parce que une économie euh, bi la mën mooy bi nga xam ni selon la conjoncture mondiale. parce que la politique monétaire est une politique. conjoncturelle. La, dans le, sur le long terme, mm-hmm. la monnaie n'existe pas, c'est l'économie réelle qui existe. Qui existe. Mm-hmm. Mais du point de vue influence, la monnaie sur les politiques conjoncturelles, mm -hmm. y compris sur le budget, sur la gestion des coûts des facteurs, sur les ajustements par rapport à notre compétitivité internationale, monnaie daf ci am solo. monnaie daf ci amoon solo. ba nga xam ne moo moo waral nag ba nga xam ni. Mm-hmm. par exemple gerte gi. je suis le la Sonacos. tey jii les cours mondiaux dañu wàcc un pays comme le Sénégal tey jii boo amoon monnaie boppam mën nañ décider de faire une légère dévaluation boo ko defee tey jii eh, amoo ci eh, eh, gerte gi nekk au niveau mondial di jaar xëy na 1000 dollars ou 1100 dollars tey jii fii au niveau du Sénégal même boo koy jënd xëy na à 210 wala 300 francs euh, le le le le le le l'opérateur économique local avec l'illusion monétaire dafay yaakaar mais surtout bu fekkee ne boobu aussi dangay ngay da ngay parvenir à bloquer ou à créer les conditions pour que prix intérieurs yi ñu nekk ay prix yu stable donc loolu li muy tekki mooy ki nga xam ne dem na bay battre monnaie war na mën a capable li muy dundee mu koy mu koy mu koy produire ci réew mi am na loo xam ne war na ko maîtriser un pays qui passe son temps à importer dëkk boobu tey jii même bu décider de sortir du franc CFA du ci génn. coono di am parce que. su boobaa et ñun Sénégal est-ce pare nañu ci wàllu yooyu yëpp. Mm-hmm. boo am na niveau d'endettement boo xam ne aussi. boo ko yoree soo soo ko yoree. Mm-hmm. Euh, dana des. Mm-hmm. li ñuy escompté ci pétrole est-ce que tey jii nangam nangam. et le gaz mën nañu permettre et cetera. est-ce que sur le plan des des des des des agrégats macroéconomiques. et surtout sur le plan budgétaire. parce que aussi le franc fa am na beneen inconvénient. mooy dafay créer les conditions de l'hypertrophie de ce qu'on appelle l'appareil d'État ce que ce que nous appelions à l'époque la bourgeoisie politico-bureaucratique ah, dafay une tendance à l'hypertrophier parce que il est facile d'importer mm-hmm. et chaque fois qu'il y a des déséquilibres qu'est-ce qu'on fait mm-hmm. on tape sur l'instrument fiscal mm-hmm. on, on augmente on augmente, on augmente les impôts etc mais mais là tu es obligé d'avoir un État modeste tu es obligé de, de il faut nga gérer ce qu'on appelle les coûts intérieurs. Mm-hmm. nga dëkk yooyu yëpp mu stable nga door a mën a. exactement donc dafay pousser à une gestion beaucoup plus dynamique. Mm-hmm. de l'économie. de l'économie mais euh, euh, euh, yenn situation yi c'est presque comme si on on gérait une une situation de rente. par exemple boo demee tey jii rien que en Gambie nga traversé frontière bi. Mm-hmm. mais Gambien boo gis mën na la wax ji jii cours dalasi bi fu mu toll. gan mën na la wax cours dollar fu mu toll mën na la wax cours euro fu mu toll mën na la wax un peu xaalisam nu mu koy dugal ak nu mu koy génne am ci dara ci alors que le, le petit sénégalais boo ko jëlee tey ji nga sànni ko foofu surtout mel na sama mbokk yi jógee côté Ndar wala yu mel noonu mu dem foofu mais il, il, il, il est perdu donc mm. euh, euh, euh, am na une situation un peu de paresse ba paresse boo xam ne sur le plan économique mm. qui semble être un confort mm. mais en vérité qui est un confort dangereux. dangereux donc parce que àddina si ni muy doxee. am na foo xam ne fa la jëm. e léegi nag balaa tubaab yi yeewu suba nit ñu kat ñun li ñu lié woon ci yéen ci wàllu koppar. Mm-hmm. muy muy CFA. décidé nañu xëy na parce que dafa am ku nekk extrême droite ku fa ñëw. wala un droitier pur et dur. Mm-hmm. rompre naa le lien avec CFA ñu bëgg fa nekk di wax ak yooyu. Eh, li ñuy def au niveau de la CEDEAO baax na mais dafa yéex lool. dafa yéex amagul hmm. euh, am na un agenda. mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci CFA si on pense que xëy na il faut ñu def un réaménagement non seulement sur le plan technique mais sur le plan politique pour maintenir le partenariat. Hmm. avec l'euro man gisuma ci benn inconvénient man daal je un partisan de la de la de la solution. Hmm. réformiste. une solution des petits pas peut-être qu'on peut accélérer mhm. au lieu d'une solution brutale mm -hmm. et qui risque de mener vers vers une aventure bon, que truc euh... et ne souvenons-nous que le que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam dafa ubbeeku d'accord et oui. Mhm. ensuite mhm. la France est un partenaire stratégique du Sénégal mm -hmm. ça aussi les, les facteurs euh, et, et, et politico-militaires dafa am solo dans le positionnement d'un pays d'un pays et mënuñu au regard de la configuration de la sous sous-région et de tout ce qu'il y a. Mm -hmm. peut-être d'autres pays beaucoup plus excentrés que nous. peuvent être tentés lu mel noonu. mais ñun Sénégal. Mhm. Euh, euh, bon euh, affaire bi du yomb xel mu métti lay nekk ñu leen ciy wax mais sa boobu parce que côté boobu la ñëpp di xalaat ba yëf yi yéex ni mu yéexee nii sax looloo ko waral. Mhm. ñëpp dañuy tiit ne Sénégal ak histoire am ak France ak ni mel buñ xëyee xëy rek nekk ñoo xam dañ bëgg porté porter drapeau bi ne dañuy génn ci franc day indi problème. ñaareel gu ñu ne ñun li ñuy dundee li ci bëri dañ koy exu importé bu fekkee tollu nañ foo xamante ne mënaguñ suñu bopp itam génn ci de indi fitna mais loolu nga wax noonu agenda boobu dañ ko waroon am commencé di ci ay ndaje benn ñaar ñett round un round deux mais ba léegi gisaguñ lu concret loo xam nit mën na cee jàpp est-ce que nit mën na yaakaar ni vraiment loolu euh, suba la wala ginnaaw suba parce que li ci des defa mel ni bëri na trop ci réewu Afrique. waaw agenda bi moom dafay jafe maîtriser parce ñaari parti la. Hmm. benn bi ñun africain yi la. am na lu ñu tënk ba teg ko techniquement modèle bi am na ba ce des mooy tubaab bi xëy na li doon met liy metti mooy li grand Youssou wax léegi benn tubaab bu bees président ñëw rek ne tey dagg daa ko. parce que ñoom li leen arrangé rek la ñu seet. ñun nga xam na li ñuy arrangé mu déet. waaw mais ñun xam hmm. nga wax naan léegi na la ci sous région bi euh, CEDEAO bi def naa def nañ euh, modèles yi. Hmm, ba taxaw ba ba ba tëj. Hmm. il reste ñu met ko en œuvre am na réew Côte d'Ivoire nee na woon deux mille dix neuf moom day commencé injecté monnaie boobu ci dëkkam bon defe naa defu ko mais Ouattara jëlu da engagement boobu. kon wax pour wax la en même temps mu ngi défendre franc CFA mun xaw ma. waaw nee na gën a adapté ci suñu wàllu koom yu mel noonu. waaw mais xam nga mooy mooy ragal ragal yi yu su doon tënk léegi mhm. mais ma jàpp ne mënul ñàkk. Euh, parce que tamit nag autonomisation la wax gis nga ñun bayuñu luñ lekk ba suur rootaguñ fi luñ mën a naan ba màndi mhm. courant bu doy sax mënuñu ko am ñun dañoo am dara ñoo ko yóbbu suñu bopp loolu moom du CFA mhm. CFA fam ñu tënk du foofu mhm. am na loo xam ne nii buñ ko jiiñ tubaab buñ ko jiiñ CFA man mosuma dégg France ne am réew bul bay soble bi ngay lekk man mosuma ko dégg. bul indi qualité kon suñ ñun suñ béyul suñu soble suñu affaire la hmm. problème CFA bi ak économie bi fañ ñu baax na parce que weccet bu bu ñi nangu la. Hmm. àddina bi nangul nañu ko parce que na jaar mën ko weccoo ko dollar nga ko weccoo euh, mais baax na boobu am na lu ca bon. Hmm. mais la ca bon mooy fond bi mooy la nga xam ne sax mooy rôle principal d'une monnaie. mooy le financement de l'économie. Ousmane doo dem banque du ma dem banque dañoo ragal. entreprise yi duñ dem banque waaw suñ demee nag ba xaalis bi ci banque yi soxlaatuñu ko nit ñi ragal nañ ko entreprise yi ragal nañ ko foofu foofu la coow lu ne hmm, foofu loolu mooy la gestion hmm. monétaire gis nga suñ toogee Amérique wala ñu toog Europe ñu ne ah comme bi day jàpp nañ ne ren du dox immédiatement comme levier oto la dangay gis banque banque centrale bi ne kon man xaar leen man ma dem zéro comme ça yéen banque yi ci mi ngeen dem deux yemuñ ci loolu de xam nga deux pour cent yomb na mhm. kon loolu moom maanaam ku bëgg a jël kaay jël su ko defee su ñëpp jëlee am nañ demee marché mais combat day dox mhm. te yemuñ ci loolu de dañu léeg-léeg dañuy dem ba pine banque yi ne banque lu tax nga fanaanoo xaalis mhm. te leb na woo ko ñu ne banque bu fi fanaan indi sa xaalis ci banque centrale u France bépp maanaam yow dañ la ci dagg sax léegi un pour cent pour obliger banque yooyu ñu daw dem ci nit ñi neexal leen sax neexal pour ñu jël xaalis bi neexal entreprise bi pour ñu jël xaalis bi loolu la am loolu ñu manqué c'est-à-dire que bi bi nii la toll nii la tudd ak gestion la. politique gestion benn boobu mooy li nga xam ne moom la France bañ ndax dafa jàpp ne suñ ñu bàyyee liberté boobu. Mhm. li ñuy wax inflation maanaam xaalis day bari mhm. koom bi jokku affaire bi mën na. loolu problème bu rëy boobu moo tax du ko nangu léegi nag bu fekkente ne tey Mauritanie bii nii mi nga grand mi nga rappelé na depuis soixante douze mhm. mais ñu ngi ci seen jàmm ñeewuñ ñeewuñu de mhm. Mauritanie ñeewuñ ñu de nga Gambie bii ñuy wax ni lu xaalis ba di bon bon bon soo demee Gambie banque ya ëpp bitig yi Gambie banques yi ñoo bëti kon kay dali si ba mm-hmm. la ñuy jël di dugal ci banque yooyu banque yooyu transformé ko dollar wala wala wala euro <laughs> wala problème mm-hmm. damaa jàpp ne mm-hmm. soo xeebee réew ci xaalisam dadi xëy na réew maa tuuti rek Gambie moo tuuti mais xaalis dana tuuti tuuti boo xam ne nii fu mel ni Chine moo gën a néew xaalis daanaka ci àddina bi sooy xool mais lam ko may ñun moom moom lañ tële cest que ñun dañoo amul économie boo xam ne tey mën nañ di exporter maanaam di jaay ci biti réew mhm. ñun ay importateur lañ mhm. ñun du xaalis bi mooy problème bi mhm. problème bi mooy économie suñu économie ni ko tëggee moo ñu sonal moo ñu sonal parce que am na Jean Pierre Coq moo doon wax ne euh, euh, un franc d'aide égal à six francs d'exportation ci nga xamante ni mais moo jaadu nekk ci réew xam nga en 94 bi ñu dévalué dañu ñëw nañu seen compte bi te temps yi naroon nañ fi dévaluer Afrique centrale. Mhm. parce que lu tax doxul ndax bant ba ñuy jaay Gabon pétrole ba ñuy jaay Congo seen prix dafa daanu. Mhm. comme ba doxatul rek ñu bëgg leen a dévaluer mais réew soo koy dévaluer mais day fekk mu am capacité. Mhm. te ñoom ba ñuy dévaluer seeni i bor dong la ñuy xool. mais dévaluation mission bi mu am mooy. day freiner importation. dootoo importer. dootoo indi ndax dafay cher. da ngaa war a góorgóorlu di mais ku amul capacité dañoo mënul amuñu en fait mm-hmm. ah mi ngi mel ni muuma nga yor yat ne ko da nga wax wala wala nga dee mm-hmm. ñun ñoo ndo ñun ñoo voilà mm-hmm. man li ma li ma jàpp mooy CFA moom dafay war a jóge ñun moom suñu bopp France tabax tabaxoo guñu tabaxaloo guñu tali bu baax buñ jaar dafa gu fi ab state France lim man mooy noot ñu li nekk ci biir suuf si mu tibb ko yóbbu soo bañee mu duma la comme centre Afrique France ci dundu nooteel boobu dañ ko war a xeex à tous les niveaux mhm. direct CFA bi wala mu dimbal la nga tabax e ñu lànk ne mhm. duñ ko signé mhm. CFA ñu dagg ko sànni man damaa jàpp ne Ousmane CEDEAO ni mu toll waxu naa sax UEMOA CEDEAO laa wax ni mu toll mais su fekkente ne Côte d'Ivoire ak Sénégal képp amuñu capacité yor xaalis bu baax ci biir Afrique mais kon nañ faase suñu réew yi. Mmh, dina compliqué. jël buum jox tubaab yi ne leen ñun mënuñu. Mmh. Mmh. Côte d'Ivoire ponkal la kii wax na ko léegi dem nañ ba ne leen yéen Côte d'Ivoire ni ngeen toll ak li alal jim am. ci bay ak ci ressource waroon nañ am seen xaalisu bopp. mais loolu la Gànnaar xool jël xaalisu boppam. loolu la Nigéria xool jël xaalisu boppam te tey. ñooñu ñu fen menaa risque bi ci nekk moo moo ci dollar. dollar dem na fi ba trois cent cinquante xaw ma euh, ah, mhm, temps bi bi bi bi attaqué Irak mhm. mais loolu auto dévaluation la c'est-à-dire ñoom ñoo ko defoon exprès pour que européens yi bañeti indi seen de États-Unis mhm. États-Unis arrêté importation yi xaw nañ euh, c'était pour étouffer l'économie parce que tamit moo ne loolu lay jëriñ dana xeexukaay la su la neexee yéegal valeur bi soo neexee wàcce valeur bi mais bu fekkante ne sa koom ca lañ ko tëgg ti n'as pas une économie équilibrée en am benn pétrole mais su pétrole daanoo da ngay màbb d'accord il faut la mone ci ne moo tax moo yàq réew benn réew bu fekkente ne yow mm-hmm. am réew mënul initiative de aw lu dul gerte mm-hmm. far nawet amut mm-hmm. mais su boobaa ya réew maag ge xaaj ba ba day ànd màbb nañ wante dëgg bu ñu accuser bi ci ci lu mu nekkul man li ma bëgg mooy africain lañu nañ ko dagg ci France teel ko suñu bopp am nañ ay techniciens yu ko mën mhm. Youssou Diallo mii toog xam naa ko bu baax ku ko joxoon xaalis bi tey mu géré ko mhm. ay économiste la mais dama la bëgg wax ne monétariste yeneen yi nekk ci UMOA CEDEAO mhm. UEMOA Union africaine mais am nañ capacité am nañ compétence bi le président de la Côte d'Ivoire la nekkoon def président e moo la gën a xam li nekk ci moo nekk Alassane Ouattara daane woon waaw la waxoon daaw xaw ma daaw jéeg su dikkaatee di rafetal dafa ragal tubaab yi rek. Mhm. mais moom moo la gën a xam ne. te mu ngi wut mandat en deux mille vingt xam naa. loolu doo ko tax wax tuuti waaw mais xam ah, moo la gën a xam ne kon mhm. autonomisation man laay wax. c'est-à-dire mhm. que li sang bi doon wax yàlla na ko yàlla yërëm. sëñ Sidi kañ la indépendance di jeex. jar naa kañ la indépendance di jeex. waaw parce que côté boobu lañ koy laaj. waaw mais donc ñu soppi baat bi indépendance dugg ci autonomisation. ci ci fànn yëpp nag ay trente choses yoo xam ne ni il faut. à dinañ waat léegi may sa baabu euh, Magaye Gaye parce que ci liberté boobu ñu wax liberté commerce intérieur commerce extérieur liberté d'initiative bu fekkee amul aussi facteur multiplicateur boobu ñu soxla dafa dul mën a am parce que may sa wax na ko buñ joxoon franc CFA kese yu su nee na il faut itam ñu xool naka la ñuy jëriñoo xaalis boobu ci yeneen anam yoo am mooy tax xaalis bi dugg wala xaalis bi génn wala mu gën a bëri mais ñun est-ce que bu ñu amul liberté boobu aussi facteur multiplicateur boobu dina te ñii bu ñu amul porte étendard kan moo ñemee jël initiative boobu parce que ñi ko fi jëloon yëpp itam toxu nañ wala ñu. absolument euh, problème bu délicat la. Mm. il faut ñu waxante ko euh, je crois que Meïssa rappelé na ko léegi. Mm. Euh, président yu bari ñu ngi jéem mais nanguwuñ cee dem soobu ci. Mm. man éco bi ñuy wax deux mille vingt je n'y crois pas. je vous le dis tout de suite je suis un économiste qui n'y croit pas. pourquoi. démb dama dégg dama doon visionner encore euh, l'interview de directeur national la BCEAO mu ni 2020 bi ça a été reporté mhm. man loolu laa dégg pour man tant que France mi ngi dans les escarcelles avec sa nouvelle diplomatie parce que diplomatie boobu seen diplomatie confuse mhm. bu njëkk dañ daan dem dañuy ñëw wax ak yow directement nga xam seen position mhm. léegi dañuy jaar ci mm, organisation yi ay CEDEAO ay UEMOA et cetera jéem def ay lobbying tout de suite gars yi génne position doo xam nu mu demee. Mm. moo amoon ci démographie bi bi amee yéen yéen ko fàttaliku. Mm. Macron génne rek ni juróom-ñaari doom kenn waratu ko am et cetera ñu ne les parlementaire la CEDEAO on di la même chose. gis nga loolu il faut ñu casser ko bokk na ci le droit de veto. bi dama dégg le directeur national keroog euh, ñu koy poser question sur le droit de veto mu naan non y' a pas de droit de veto. ni na France amul amul veto banque centrale yëpp dañoo hmm. parce que dañ ni il y yooyu mais la majorité c' est c' peut être ñu ni comme si c' est yi la kon y' a pas de veto. Hmm. moi je je veux le corriger y' a pas de veto technique. Hmm. mais il peut y avoir un veto politique. parce que les choses ne se décident pas là-bas. Mm-hmm. ay consensus lay doon au niveau des chefs d'État te loolu bëgg naa ñu xam ko. Mm-hmm. maintenant pour revenir aussi euh, ci jafe-jafe yi nga doon wax léegi. Mm-hmm. Ousmane xam nga lettre bi ma bind BCEAO nan laa leen wax il faut revisiter les missions yi assignées à la BCEAO et à la gestion de nos dispositifs monétaires. mais Ousmane depuis quarante cinq euh, soixante treize ba léegi. est-ce que xam nga nii de quarante à soixante treize il y avait ce qu'on les trente glorieuses. mooy fanweeri at yi nga xam ne naataane gu bari moo amoon ci àdduna mais 73 ñëw inflation jug rek benn sagaru économiste bu ñu naan Milton Friedman génn ni non maintenant il faut que ñu mettre l'accent sur le prix mais tey chômage baa ngi fii tey production mënuñu ko relancer ñëpp ni non il faut que les prix soient euh, alignés autour de 3 pour cent mooy banque yi ci boppam le dispositif prudentiel bi ñu ci def mënu leen a permettre aux autres ñu financer l' économie dañ lay taxawloo ñu la non non waroo dépasser tel ratio soo ko dépassé ñu dal sa kaw mais kooku problème la donc man c' est pourquoi je veux qu'on revisite les missions de la banque centrale def comme la Fed américaine mm-hmm. la banque centrale américaine dañ ni nous notre objectif c' est le plein emploi plein emploi dañu bëgg xale yëpp liggéey ñii la ñu wax suñu objectif mooy ñu limiter l' inflation à 2 pour cent ou à 3 pour cent pendant ce temps là tu n'as pas une structure économique qui qui qui qui qui qui fonctionne mais kooku man dama bëgg ñu càmbaraat ko dégg na keroog le ministre un ancien ministre bi bu ñu invité RFI mu naan y' a y' a pas de problème de désindustrialisation maanaam mm-hmm. industrie bi. mu ngi dox mu ngi mais kooku je veux lui répliquer quelque chose. Mm-hmm. monnaie boo xam ne arrimé nañ ko ay monnaie forte te mënatu ko exporter. Mhm. aujourd'hui le taux de transformation des mhm. matières premières tourne autour de vingt vingt cinq pour cent. Mhm. cacao bi la en Côte d'Ivoire Sénégal lan lañ peut-être Youssou pourra nous le dire. lan la transformer actuellement quel est le taux de transformation. les banques de finance publique dama doon lire benn rapport tey ci suba ñu ni le taux de financement à l'économie tourne autour de vingt huit pour cent. mooy cent yoo jël vingt huit yi mooy financement nañ ba ay cent mais kooku c'est un problème qu'il faut résoudre d'abord avant de penser à une mmh. solution mmh. maintenant leneen li les les pro CFA mmh. <laughs> lan lañ lay wax à chaque fois la stabilité on a la stabilité mais dans la pauvreté est-ce que d'accord ngeen ci yéen mais Sékou Touré bi muy jël euh, sa monnaie mais est que vous savez que les services secrets euh, français dañu dem tuur fa xaalis bu bon sa monnaie là dañ fa tuur xaalis bu bon xaalis bu wàcc problème yu bëree bëree bëri la Syrie problème yu bëri yu Guinée am te loolu moo ko waral mm. ñu naan ñu les arguments parce que la stabilité on a beaucoup d'investissements directs étrangers mm. man leen fait attention soo xoolee statistiques yi mm. investissement direct étranger yi ça va vers les pays anglophones et vers certains pays comme l'Égypte le Maroc et cetera les Africains n'en ont pas beaucoup beneen chose aussi. te investissement yi aussi presque li nga waxoon économie extravertie. ñoom ñoo ci gën a jëriñu ko waxee le mm. pétrole yooyu rek la pas dans dans la travail regardez quoi qu'est-ce qu'on transforme aujourd'hui au niveau national rien pratiquement on mm. transforme sur mango jàng yàq Casamance. Mm-hmm. Euh, soo jëlee euh, Côte d'Ivoire le taux de transformation que je le rappelais tout à l'heure tourne autour de vingt cinq pour cent mais ça mm-hmm. c'est un problème mm-hmm. mais il y a mieux que ça est-ce que vous trouvez normal au vingt et unième siècle que ñu continuer di tëgg suñu xaalis foofu. différence au moment où le Ghana di tëgg xaalisam ou le Nigéria di tëgg xaalisam l'Afrique du Sud di tëgg xaalis même la RDC bi ngeen gis ni te ñu ils sont en difficulté dañuy tëgg seen xaalis. Mhm. keroog dégg naa le directeur de la banque centrale centrale au niveau du Sénégal mhm. l'agence nationale. mu ni oui non c'est parce que c'est dû à des des problèmes de j'allais dire d'économie d'échelle mhm. mooy soo jëlee un pays comme le Nigeria ça fait plus de cent millions d'habitants mën nañu abortir le coup mm -hmm. mais man kooku dama parce que quand même huit pays membres suñu dajaloo mënuñoo tabax lu Nigeria tabax il y a un problème mm -hmm. surtout dans la durée war nañ ko mën a amortir mm-hmm. et puis Ghana amuñu cent millions d'habitants mm-hmm. Ghana peut être ay vingt millions dix millions la te affaire wàññeegul exactement ma mm-hmm. ñëwaat aussi ci benn un dernier aspect qui me semble important ci les inconvénients les Français ne le soulignent pas souvent mais c'est des inconvénients à mon avis cachés mooy le franc CFA ne favorise pas l'intégration mais xoolal tey tey sooy sa sa sa mille francs tey. soo demee Afrique centrale da nga koy wecceeku door ko jaay. donc ça freine l'intégration l'intégration deuxième chose euh, am na ay statistiques yu wane ni mhm. tey UEMOA 3 pour cent rek de ses exportations mooy dem en e au niveau de la CEMAC mhm. kooku est-ce que dana favoriser l'intégration mhm. nga seet le commerce intra zone cest à soo ñëwee ba ci UEMOA 14 pour cent kese la ñuy jaayante ñu nekk Côte d'Ivoire ñu nekk et cetera ñu ne ñoom wax na ko ñeen ñëpp ay 3 pour cent la ñooñu c'est trop faible Ousmane. Mhm. bu ci dara nax ni nga gën a mën a xamee ba xam monnaie bi baaxoon naam déet. Mhm. xoolal tey fan la ñu toll. Mhm. dama doon lire benn rapport FMI. Fonds monétaire international astafirullah PNUD programme des Nations Unies pour le développement. lii la ma wax nee na ma en 2017 mooy dernier rapport bi ñu am. sur les vingt cinq pays les plus pauvres au niveau de l'Afrique les dix faisaient partie de la zone CFA dix sur quatorze mais ko kum jaaxalul lu la jaaxal mm-hmm. benn mm-hmm. le Fonds monétaire international maintenant mm-hmm. ñoom tamit def nañu un classement mais à l'échelle mondiale aussi okay. mais ñoom li ñu seetlu mooy sur les vingt cinq pays les plus pauvres du monde cette fois-ci mm -hmm. il y en a six astafurlah sept qui sont de la zone franc muy mm -hmm. deuxième mais troisième chose bi mooy mais en économie il faut toujours comparer ce qu'on appelle le taux de croissance moyen à ce qu'on appelle le taux d'endettement en termes de coût d'endettement mais taux de croissance moyen bi xam nga la fi ñu toll ça tourne autour de six virgule euh, trois ou sept pour cent le taux d'endettement de nos pays tourne autour de six quatre-vingt-treize euh, les économistes les financiers le savent ils savent ce que c'est un taux de rentabilité interne soo ko bëggee calculer avec euh, comparé avec un taux de d'emprunt loolu moo lay woon ba xam si investissement bi rentable la au niveau macroéconomique également soo comparé ñaar yooyu sa veut dire qu'on fait bii di 6 et quelques. Mhm. te donc surplace. sur ce plan là aussi man li ma bëggoon aussi. Mhm. Euh, Ousmane. Mhm. mooy ñi prêter une attention à la Banque mondiale. gis nga Banque mondiale def nañ benn rapport bu génn il y a pas très longtemps. boo xam ne ñu bari ils sont passés sur silence sous silence. banque mondiale nee na les pays africains doivent faire attention au risque d'une monnaie surévaluée sans tudd CFA. Mhm. loolu dama ko lire rapport. ok oh, risques d'une monnaie surévaluée. moo tax man euh, euh, malgré tout ça nag. Mhm. pour ne rien te cacher. Mhm. je ne suis pas pour le saut dans l'inconnu mhm. attention ce que j'appelle par le saut dans l'inconnu mhm. maanaam tëba tëb rek tëba tëb rek dem ci loo xam ni wóorul mhm. mais man ñu bari dama gis ñuy wax mais li leen gêné mooy France bi ci nekk te man moo ma gêné de man c'est pas un problème de convertibilité de France bi ci nekk jàppe ñu xale ñu jëmale fu ko neex man c'est ça mon problème de fond moo tax ma Ousmane man li ma bëgg et ça je l'ai proposé man damaa bëgg nañu xoolaat tur wi nañ ci génne France. Mhm. benn ça ne va pas résoudre c'est cosmétique. Mhm. mais africain yi symbole dañ koy teg fale te symbole c'est très important. Mhm, d'accord nañu jële français CFA bi wut euh, un nom éco wala kori wala dara. wane ni franc benn harmoniser ak harmoniser effectivement avec euh, les autres. les autres deuxième chose. Ousmane nañu fexe ba cette parité là. c'est parité fixe. ñu faram nañu ko changer réfléchir à une gouvernance aussi au niveau de la BCEAO. man li ma gënaloon mooy. nañ jéem a copter mais am na ay pays africains yoo xam ne am na ay monnaie yu baax. Mm-hmm. Maurice. ñu jéem a Madagascar benn bi ngay dégg ni mm-hmm. mais il paraît que ils gèrent bien leur monnaie ah. c' des gens qui gèrent bien leur monnaie. nañ leen gën moom xam-xam bi ñëpp d' accord nañ ne mu ngi fi peut être xanaa alternative possible yooyu. man nag alternative boobu man mm-hmm. moo ma gënal. daal di tëb tëb ni on a tout enlevé France mhm. su bëggee am euh, des accords bilatéraux avec certains pays mhm. na leen am mhm. mais aujourd'hui daal man je ne peux pas concevoir quand c'est vingt et unième siècle ñuy wax waxu français que ñu continuer nag vraiment ay xale ay ay ay ay pays comme ay xale ñu leen di woo fi li leen jox ay ordre ça je ne suis pas d'accord aujourd'hui je ne serai pas d'accord demain Magaye Gaye dinañ ci dellu si waat léegi merci Guy Marius Sagna parce que développement itam comme ni ñu wax euh, nekkul neta boo xamante ne permanent standard maanaam buñ la ne développé wu nga tey ñaari économistes yi di Youssou Diallo ak Meissa Babou su leñu nañ fi ay pays yu mag yoo xamante ne xaw tuut ñu am jafe-jafe ay manœuvre yoo xam ñu ngi jóge ci biti wala ci biir ñun aussi suñ développement est-ce que dañoo jàpp ne rek fii lañ toll diggante euro ak franc CFA daal fii la nañ ci taxaw bu ñu waxee ne échange échange bi day inégal waaye dañu nangu ne bu ñu yóbboo tuuti indi lu bëri comme ni ko magay waxee est-ce que fan woowu laajul aussi bu ñu xalaatee ba pare ñu am courage politique bu tax nag ñu mën itam parfois ñu mun di imposer comme ni ñuy imposer li nga xam mu te baaxul ci ñun sax te ñun mënuñ ci dara ci politique ñu koy doxal est-ce que laajul courage politique tuuti parce que initiative bi rek doyul. am naa xëy na jafe-jafe comprendre tuuti laaj bi. Mm-hmm. maanaam ñun. waaw xam nga bu ñu waxee ne échange. Mm-hmm. lu ñu exporté lu ndaw la. mais lépp presque dañ koy importé. Mm-hmm. te ñu ñu ko joxee parfois dañuy subventionné seen béykat mun nañ jaay lu ne ñun. suñ béykat mënuñoo jaay lu nekk ci fan woowu est-ce que buñ jëlee matuwaay tey pour mën a toll ak ñoom fit bi mu laaj ci wàllu politique aussi est mm, bu fekkee euh, li nga wax dégg naa ko mm-hmm. en fait fu mu nekk nii yaa ngi élargir perspective bi mm-hmm. yamatoo ci franc CFA mm-hmm. parce que loolu itam lépp dafa bokk ci monnaie bi di ma may quand même ci franc CFA ma wax quelques petites choses terminé ko waaw benn mooy gëmuma ne li Tunisie marok Algérie def gën saa bëri ñetti at ginnaaw bu ñu moomee seen bopp que ñun Sénégal ñun Mali ñun Côte d'Ivoire mënuñu ko def juróom fukki at ak juróom ñett bu ñu moomee suñu bopp. ah déedéet Youssou Diallo mënuma gëmloo loolu keneen mënuma ko gëmloo Ouattara mënuma ko gëmloo président Macky Sall ma ko gëmloo. Tunisie Maroc Algérie zone franc la ñu bokkoon dañoo jël indépendance. damal xool chiffres yi. Mm-hmm. même pas trois ans ñu taxawal seen ne bopp. gëmuma ne Maroc boobu. moo gënoon dëgër Sénégal bii juróom fukki at ak juróom-ñett gëmuma ne Tunisie boobu moo gënoon dëgër Mali juróom fukki at ak juróom-ñett ginnaaw indépendance donc wax bi kay du ay waxu agenda ay waxu saut dans l'inconnu monnaie unique bu CEDEAO kañ lañ ko commencé wax 1987 maanaam tey am na fanweeri at ak ñaar donc wax bi kay du ay waxu agenda bi du ay waxu nañu def ndànk dañoo def ndànk ba mu ëpp mu ngi mel nii yow jamono njaam. Mhm. njaam bi naan non bugguma génn si njaam ndaxte wóorul est-ce que bu ma est-ce que bu ma génne bu ma dawee ba raw est-ce que naa ndékki est-ce que naa añ. Hmm. kan moo mën xalaat loolu. Hmm. ndaxte français fa njaam la. buumu hmm. jaam la. toog fii sax di xool ay avantage inconvénients mu ngi mel nga toog naan lan mooy avantage inconvénient njaam. xam loolu xel mënu kaa nangu. c'est la de la même manière man sama xel man abolitionniste la du ma réformiste. sama xel mënul nangu. ñu naan lan mooy avantage inconvénient franc CFA parce que mu ngi mel ni nga ne lan mooy avantage inconvénient colonisation. Mm-hmm. maanaam nooteel la. Mm-hmm. donc voilà foog ñu waxee ko noonu. Mm-hmm. nooteel doo xool lan lan mooy avantage nooteel. kan si ñu moom mu toog fi naan lan mooy avantage nooteel. franc CFA nooteel la loolu mooy wax ji France da ko def pour objectif bu leer donc ñetti réew yooyu. loolu la ñu def parce que bu ñuy joxe exemple. gis nga. boo nekkee jullit booy joxe exemple da ngay joxe misaal ci gën ci mbindeef yi mhm. doo ñëw naan non non non kii maanaam jullit la woon da doon naan donc déedéet da ngay joxe exemple yu baax yi pour wane ne mën na nekk mën na nekk donc doo fi ñëw wax Guinée te comme kenn nu mu ko waxee opération Persi mhm. moo tax Guinée am li mu am mhm. opération Persi mooy France buggul woon Guinée dox mu këpp fa xaalis te français yi seen bopp wax nañ ko donc même joxe exemple Guinée c' est parce que xam nañ li xew paramètres yi dugg voilà déedéet du gestion Guinée moo tax Guinée déedéet ñee ñoo mere ñii li tax ñu moom seen bopp saboté indépendance bi ñu woowee ko ñoom te ñoom ñoo ñu ko wax opération Persil donc da ngay joxe exemple yu baax da ngay naan gana ñu ngi naan ok stabilité ah mu ngi yore kopparam indicateur boo jël misaal boo jël Ghana moo ñu raw Maroc waa CEDEAO sax ñu ngi ragal mu dugg te Maroc ñu ne PIB am Ghana Sénégal ak Côte d'Ivoire. Mm. loolu mooy PIB Maroc. te li ko ko may bokk na si am kopparu boppam di ko mun comme ni ko sama mbokk yi waxee. Mm. Mm. di ko yéegal di ko wàccee ngir say njubluwaay. pour dab bànneexu askan wi ci wàllu xëy ak gont mooy emploi dab bànneexu askan wi ci wàllu petite et moyenne entreprise ñu dëgër ñuy jaay mm-hmm. xam nga lan la économie mm-hmm. état buy gérer économie ñaari jumtuwaay moo si solo mhm. budget ak koppar mhm. budget ak mone suñu budget moomuñu ko mhm. FMI ak banque mondiale moo ñuy wax lu ñuy def contrôlé wuñ ko suñu koppar moomuñu ko France moo ñuy wax lu ñuy def juróom benn weer yu nekk ñu tase France France dajale ministère de l'économie yëpp ne leen kaay leen France ndax France CFA yeneen juróom benn weer yi ñu xool benn réew Afrique ñu daje maanaam rendre compte xool affaire yooyu muy doxe ak fi mu toll ba tey droit de veto dafa am. directeur BCEAO wax nañ ko ko. déedéet du sax implicite. du droit de veto de droit. maanaam doo xool ci statut banque ci statut BCEAO doo fa gis droit de veto li am mooy. ci comité de politique monétaire bi. unanimité am na dogal yoo xam ne foog ñëpp d'accord si. loolu mooy ñun loolu la ñuy woowee droit de veto. te directeur BCEAO xam na ko. ndaxte France da ci am ndaw. boo waxee ne mhm. ñoom ñëpp foog ñu d'accord sinon dara du am loolu mooy juróom ñetti réew yi bu ñu jaaree nii mhm. France jaar nee te su boobaa voilà loolu mooy mhm. droit de veto de fait pas de droit te ñoom xam nañ ko ils sont pas sérieux xam nga lan la France CFA xam nga ñoom ñoo si am avantage am na avantage mooy un France ak i entreprise am ak yeneen réew yëpp yu bokkul ci waaw d'accord maanaam seen importation surtout France ñaareel bi mooy mooy commerçant importateurs yi. Mm-hmm. moo tax même dañoo war a wax ak suñu commerçant yi. Mm-hmm. commerçant importateurs yi parce que français CFA day yombal importation. Mm-hmm. doo leen mës a dégg ñu wax. ci franc CFA. muy ñaar ñetteel bi mooy ñii di liggéey BCEAO. ay joxe benn misaal 2017. ñu ne crédit bancaire 2017 banque sa nekk euh, BCEAO mu ngi mu ngi lebal agent yi. lu ëpp cinquante deux milliards deux mille dix-sept donc directeur BCEAO ak keneen ku dul directeur BCEAO te di liggéey biir BCEAO mhm. lu muy wax cinquante deux milliards at boobu les entreprises du secteur productif de Guinée-Bissau ñu ngi amoon ci at boobu ci BCEAO trente neuf virgule cinq milliards xaw ma ndax yaa ngi di dégg ce que ça signifie mhm. ñooñu ñoo am avantage moo tax Modou Al Amin Lo ak ñoom seen ñii di liggéey ci maanaam bés yow e bu ñu waxee ne franc fa koppar bu baax la bu baax la ndaxte am nañ cinquante deux milliards yi ñu ngi leen lebal ñoom agent yi mhm. fekk ne boobu entreprise u Guinée Bissau ñu ngi leen lebal trente neuf mhm. loolu mooy wax ji ma ne trente deux ans dafa ëpp mille neuf cent quatre ak tey ñu ngi naan monnaie unique mhm. li Magaye Gaye wax man moom laa d'accord man pour man pays UEMOA yi yii di wax naan monnaie unique dans un an dans deux ans dans trois ans. Mhm. dañuy wax lu leen neex mais xam nga li am. Mhm. dañoo tiit fu mu nekk nii. Mhm. ci xeex bi ci wax bi ci mobilisation bi. ndax comme ni ko yenn borom xam-xam waxee. dafa am la libération. de la parole monétaire. parce que amoon na jamono joo xam ne boo waxee ñu faat la. ñi doon wax ñu tuuti lañu. c'était un débat entre quatre murs un débat d'intellectuels. mais depuis quelque temps le débat s'est démocratisé ay manifestations fu nekk. fu mu nekk ni dafa ëpp doole biir Afrique ak diaspora mhm. léegi nag pour calmer loolu ñu ne xaar ñu xaar ñu seulement leen suuf mhm. parce que yi li mu wax dafa leer mhm. Buhari dafa wax Mohamed yéen pays mois yi dama bëgg ngeen wax ma seen plan de sortie UEMOA franc CFA parce que man Nigéria du ma nangu monnaie unique boo xam ne France moo koy contrôler wala am na si pàcc man Ghana du ma nangu monnaie unique CEDEAO boo xam ne France dina ci bokk waaye ba tey jii nii dégg ngeen Ouattara dégg ngeen Macky Sall mm-hmm. lu ñu wax kenn waxagu fi plan de sorti mm-hmm. nañ ko wax te dee mm-hmm. avant dernière réunion bu CEDEAO loolu la bu waar yi wax te ñu bëri yëguñu ko daf leen ne wax leen ma seen plan de sortie moo tax man jàpp naa ne tant que ñoom Macky Sall Ouattara ak ñu mel ni ñoom ñu ngi nekk ci bopp réew UEMOA monnaie unique amagul du gaaw am que à l'époque ndaxte ñoom pareeguñu loolu mooy wax ji ci CEDEAO bi noonu la woon CEA la woon communauté économique de l'Afrique de l'Ouest booba pays francophone yi kefe la ñu ne nag Nigéria Ghana ñooñu comme ñu ngi am koppar il faut que ñu fexe dugal CEDEAO Afrique de l'Ouest mais booba France dafa bañoon sax it lam doon financé CEDEAO mu coupé ko ne kon nañu demal seen bopp kon ci fànn yi tam xam naa ne ba muy tudd du ci gaaw am bu dee bu dee France CFA koppar bu baax la woon mhm. lan moo tax France mosu ko jëfandikoo bonne question mhm. bu dee France CFA koppar bu baax la mhm. lan moo tax France mosul jëfandikoo France CFA te affaire bi dafa gën a compliqué xam nga lu tax moo tax même même mhm. mhm. mhm. italiens yi. foog ñu wax leen dëgg. naa ci dellu si en bu si kanamee. bu ñu jàpp rek dañoo wax de. italien yi foog ñu wax leen dëgg. xam lu tax mu gën a compliqué. depuis bi euro amee. France pour mu jël dogal yu am solo ci franc CFA dafa war a avertir Union européenne maanaam ñi ñi nekk euro bokk. dam leen xool dam leen xool. li France signé. Mhm. ak banque centrale mhm. ak yeneen réew union européenne yi mu sëkkal euro mooy balaa moo am décision bu am solo ci franc CFA mhm. France foog mu yëgal ko donc bu fekkee ca cosaan ba ñun bu mu jàmm bi France rek moo ko doon téye fu mu nekk nii ñaar la ñoom ñëpp ñu yow voilà donc italien yi wax nañ dëgg waaye benn pàcc ci dëgg bi la wax nootal la ci France. Mm-hmm. waaye ñoom seen réew Italie dafa bokk zone euro. waaw mm-hmm. ah, mais nag kii ñoom. Mm-hmm. non xaar ma daaneel. xaar ma daaneel ñoom ñëpp xaar ma daaneel xaar ma daaneel. seet yéen nekkul ci nootal si xam nga lu tax. xam lu tax li ma bëgg a feeñal xam nga mooy lan. mooy bu fekkee critiqueu italien yi bëgg africain yi la. xeex nootel la. waruñu yem à mi parce que banque centrale européenne mu ngi collaborer ak France. ci suñu nooteel mhm. bu fekkee ñoom nan non non non dañoo war a dénoncer France ci Union européenne déedéet ñoom xam nañ lu ñu war a def mhm. parce que les papiers son clairs mhm. beneen bi mooy mun naa extrapoler mais italiens yi Union européenne la ñu bokk kan moo ñu signé loog APE donc <laughs> lan moo tax ñu xool rek franc CFA naa la wax lan la dafa am ay contradictions inter impérialistes parce que après Italie ko éthiopiens yi dóorul woon. Mhm. italiens yaa ngi fii mhm. en réalité xam nga lan la. Mhm. italiens yi dañoo sonn ci migration irrégulière bi. dañoo sonn ci Union européenne ki muy njëriñ mooy Allemagne. ak France accessoirement. ñoom ñi ci am amee tuuti. doomu France Sarkozy. Hollande ay entrepreneur de France di nga leen dégg ñuy critiquer euro. ndax euro xaalis bu kawe buy servir Allemagne. bu fekkee waa France ñooy critiquer euro. ndax xaalis bu kawe la buy servir Allemagne. Mhm. kon ñun africain xanaa kon dee nañ. waaw ñooñu nga xamante ne léegi nag jamono jooju. Mhm. suñu njiit yi toog na pat. Mhm. xam nga lan la jëlaguñ position dañoo war a génn. Italie euh, plutôt Algérie Maroc Tunisie ñetti at génn nañu fooguma ne ñun soxla nañ 30 ans pour génn. léegi nag effectivement day am plan de sorti mais pas à négocier avec la France. looy négocier ak ki lay noot. non France du mos a d' accord mm-hmm. parce que njëriñam déedéet statut yi dafa clair d' ailleurs Macron bi mu demee Burkina lu mu wax ku d' accordul ku mm-hmm. gisutul boppam ci France CFA na nga génn mm-hmm. waaye ñun la ñu njëkk jàpp mooy France jéego bu njëkk bu ñu war a takk pour moom suñu bopp ci wàllu koppar mooy France na génn loolu moo indi d' ñu ne France dégage maanaam France na dégager suñu ay conseil d' administration nañu delloo suñu réserve mm-hmm. alalu golo ca lex ba mm-hmm. France bu mu defaree ti suñu koppar mun nañ ko defaree biir Afrique ndaxte RDC effectivement da kay defar suñu commerce mën a am indépendance ndaxte Kenya da koy defar mm-hmm. ndaxte Ghana da donc jéego bu njëkk France na génn ñaareelu jéego bi mooy ñun li ñu gënal mooy ñun ñëpp waa e ñu génn ndoo am suñu kopparu bopp waaye kaa ñu ànd neex na waaye Youssou Diallo bu buggul est-ce que man damay naan damay xaar Youssou ba Youssou d'accord yow boo buggulee damay xaar te mu leer ma ne lii nooteel la déedéet sortie panafricanisme mm-hmm. sortie panafricaine moo ñu gënal waaye yéen ñëpp bu ngeen d'accordulee mm-hmm. ma jël sama ay responsabilité mm-hmm. ndaxte am na réew yoo xam ne bokkoon nañu zone franc biir Afrique ak feneen fu mu nekk nii ñoom ñëpp ñoo ñu raw te am nañ seen kopparu bopp te gëm naa ne am na ay doomu Sénégal ay doomu Mali ay doomu Côte d'Ivoire yoo xam ne comme Maysa nu mu ko waxee seen xalaat mais xarañ nañ xarañ boo xam ne mun nañ administrer sans l'aide de la France suñu ay koppar loolu mooy wax ci dinañ ci dellu soit te eh, Guy Marius Sagna mm. Youssou Diallo parce que nag euh, ñëpp accord nañ ne génn war na am gën jot na mën na nekk aussi parce que xarañ a ngi fi xam-xam a ngi fi mais itam euh, Guy Marius Sagna wax na lu am solo sànq nga xam ne wàllu intégration bi aussi da ci am solo nga xam ne bu ngeen génne yéen ñëpp nekk UEMOA nekk groupe ci lay gën a facile que bu kenn di génn par benn par ñaar par ñett parce que xam nga euh, boo demee ci wàllu monnaie yooyu Allemagne mu ngi noonu am ci ambeli li des ci Europe di yuuxu bu ñëwoon fii itam génn est-ce que suñ koppar yooyu nga xam ne dañ koy bokk ak yeneen réew bu fekkee éco bi dafa ñëw dina am ndax franc euh, uguya ba wala neera ba day ñëw sut yi ci des wala nan lay demee est-ce que loolu nekkul li tax nit ñi am ci tiitaange ba léegi mu laaj waxtaan yeneen yoo xamante ne agenda bu mën a gën a yéex tuuti la par rapport ak ni ko Guy Marius bëggee jërëjëf euh, euh, Ousmane fii débat bi vraiment macha allah très mm-hmm. élevé fii mm-hmm. les gens analysent ci fànn yëpp daal mm-hmm. euh, man foofu dama benn xarit nee na ma gis nga Youssou ma ne ko waaw mu ma gis nga ñun africain surtout africains yi ñuul yi waaw mu ne ma tànk tubaab bi raxuñu du ñu am discipline bu ñu jëlee benn règle ci ñun kese africain ñu seq ko ah na jël su région bi rek mm-hmm. am na ñoo xam ne bu Sénégal ne nangam du ñu sax réfléchir mm-hmm. d'accord mm-hmm. donc ñun africains yi fii au début des indépendances mais fédération du Mali mi ngi fi leneen ak leneen mi ngi fi woon mujj réew yi nga xam ne sax nekk na des micros am na jóg ni dañuy jël seen indépendance wala ñu euh, na na tas. rébellion yaa ngi fi gaañ. donc suñu problème c'est très compliqué bu ñu fàtte ni aussi ci wàllu économie la ñuy wax te économie comme on dit lambi la ku jóg daanu ñëpp doole ñuy imposer seen loi boo gisee États-Unis lu ko neex def mooy tey jii mën na am un déficit à l'infini ndax devise la dafa am monnaie qui est une devise tey jii mën na jël la place li ñuy wax la place à billets mhm. en dollars di ko tirer à l'infini mhm. le monde entier dañ koy consommer donc xam nga moom déficit extérieur yi du problème am tiitu ko mhm. mais c'est pas le Sénégal Sénégal tey jii boo amatul réserve mais daanaka euh, euh, boo deful ndànk balaa nga naan damay génn ci CFA dañ la ci dàq parce que lawoon won ni na réserve de change ya nga daan am mu tax ñu garantir sa convertibilité ak ak les transferts mais amatul ñu arrêté ko. stabilité bi jaxasoo. stabilité bi jaxasoo. dañuy fàttali ni réew mu néew doole lañu. réew mi liñ fi génne ci richesse boo jëlee li état am ci impôt ah nga jël euh, aussi li nga xam ni euh, boo ko jëlee impôt jël nga jël douane. nga jël les transferts unilatéraux maanaam suñu mbokk yi nekk immigré di transférer les mille milliards là par par an boo ko boolee matul quatre mille milliards matul quatre mille milliards yaa ngi tu as un budget presque de quatre mille milliards mhm. loo utiliser pour investissement xëy na daa jël tuuti ci investissement mhm. donc ay réew yu néew et ensuite suñu balance peut-être euh, euh, commerciale dafa déficitaire mais transfert unilatéraux yi tax na sunu balance euh, euh, des paiements excédentaire donc ci wàllu monnaie mën nañu am chance avec les transferts unilatéraux ka nga xam ne dafa nekk Italie su yónnee euh, cent euros buñ ko transformé en monnaie locale deme mën na nekk lu am solo parce que am sa monnaie bopp ñaari avantage ba ñett lay indi avantage bu njëkk bi mooy daa mën am en terme de politique conjoncturelle daa am ñaari politique daa am la politique budgétaire mais aussi daa am la politique monétaire te wan naa ni la ajuster une économie bi ci gën a gaaw tey jii mooy rek nga changer un taux de change par rapport au reste du les prix les coûts yooyu yëpp les salaires yooyu yëpp dafay changer automatiquement beneen avantage bi wax nga ko sànq les crédit à l'économie parce que tu finances l'économie en monnaie locale euh, su ma goro am na entreprise fële ca Mbacké bëgg na def des extensions et cetera mën naa ni mën naa porter le taux de financement de l'économie peut-être de vingt huit mën naa ko yóbbu à quarante pour cent def de la création monétaire mm-hmm. parce que euh, contrôler naa sama banque centrale mm-hmm. tey jii pour le financement de l'agriculture mm-hmm. situation boobu tey jii bu ci nekkoon mais doo gis ñu nekk fale naan OPS yi aw ma financement lu ko waral banques yi leen war financé mais xaalis bu doy bu ñu leen financé pour ñu dem jëndi gerte gi nangam nangam amuñu ko amuñu ko te mënuñu aventurer wu joxe lu su fekkoon ni am nga banque centrale boo xam ne yow yaa ko contrôlé tey jii da nga naan écoutez porter les crédits à l'économie de tel niveau à tel niveau fi mu nekk ni mënuñu loolu il faut que ñu am une autorisation de la banque centrale et cetera donc dafa am une certaine discipline boo xam ne dañ koy ki mhm. beneen bi qui est important mooy nga am une monnaie parce que on a vu ci Afrique dëkk yi ëpp li ñu am ci investissement direct étranger mooy dëkk yi nga xam dañu am seen monnaie bopp. la zone CFA est l'une des zones où le le le, le niveau des investissements direct est le plus bas. parité boobu permettre ñu mun. voilà donc foofu nag c'est moom laa la lay wax par exemple boo gisee. un peu entreprise euh, Guy Marius boo mm-hmm. boo gisee fii entreprise française yi quand même loo ci wax wax boo wut investissement direct mais c'est pas ton problème c'est pas mu nekk chinois. wala mu nekk français wala mu nekk indonésien wala mu nekk ghanéen wala nigérian mais ko xam ne day indi xaalis di investir dans l'économie di créer des emplois di kii di di fay des impôts mhm. et puis conformer wu à la législation intérieure du pays mhm. tey jii ci wax wax en termes d' entreprises étrangères entreprises françaises yi ñoo tenir et particulièrement par rapport au système bancaire mhm. regarde nos deux grandes industries regarde la Sonatel regarde et cetera. Ah, Youssou lu ko waral. Euh, c'est des c'est des trucs français non non non la bëgg wax ni la. Mm-hmm. am na ci loo xam ni. Mm-hmm. il faut que euh, nga nga nga nga dem. dans une perspective mm-hmm. réformiste mais ferme. bu ma lay wax agenda bi avec la France pour mën a aujourd'hui ce ces mécanismes vraiment anachronique parce que man noonu laa koy que ma ko mën wax maanaam loo xam ni. dafa xew yi xewi àddina. méngootul ak loolu. soo ko bëggee méngootul soo ko bañee mingootul mm-hmm. te ñun buñ ci continuer gàcce moo ñu ci daal xam nga gàcce mooy lan mm-hmm. dangay ngay yeewu suba waa Union européenne ca ca Bruxelles mm-hmm. la ñuy décider de mettre un terme à ce mécanisme anachronique. su boobaa nag nga nekk ñu nekk di fëx fëx yi. <laughs> balaa boobu comme li amoon gis nga par exemple l'UEMOA on l'a créé le jour de la dévaluation dévaluation en 94. xalaat est-ce que est-ce que dañu war toog ba loolu daanu suñu kaw. bañ a anticiper ci situation bi. te gis nañ moo tax nag ma lay wax par rapport ak et je que condition yi nag suñu président yi suñu amee fulla ak fayda. danañ ko imposer France et balaa yàgg danañ am mécanisme boo xam ni. danañ ko am léegi nag la ci des nag finalement nag ñun africain suñu biir lay nekk. te foofu nag aussi yombul. boobu nag Youssou ñu bëri foofu la ñu am tiitaange. parce que tiitaange bi. Mhm. mooy foofu. moom nga ne bu ñu tubaab raxul parce que su boobaa moom. Ah. artu amul mais c'est grave. ah boobu aussi jar naa xalaat réalité la. Hmm? gis na exemple ah bi de mooy France wala moo représenté Banque mondiale wala FMI. mais boo boo ñëwee réunion bi ah Youssou Diallo moo dirigé. Hmm? léeg nga gis ku ñëw taal cigarette am. wala mu toog bu segg bu génn. wala mu jékki-jékki portable am sonné mu nekk allo nangam nangam. Hmm. donc problème bi. Mhm. en fait ñun ñii suñu bopp. Mhm. nu les Africains on a qu'à se libérer des blancs dugg na fii génn na fii le panafricain ndax pare nañ man man dama ciy def ndànk. Mhm. suñu mag ñi nga xam ne fekke woon nañu fédération du Mali ak yi ci xewoon ak yooyu ci biir yëpp. mais doy na waar. te je ne suis pas sûr tey jii que mentalité yi évolué na. ñun ñu dugg di dem à gauche à droite. ak am lu nga xam dañ koy seq. donc et ensuite ñun Sénégal suñu position par rapport à la France parce que aussi. Euh, euh, dama bëgg sama bopp du bañ naa la mm-hmm. le type de relation particulière que nous avons aujourd'hui avec la France sur le plan stratégique sur le plan militaire sur le plan économique est-ce que autorisé nañu aujourd'hui ñu dem à certaines solutions de rupture mais est-ce que au, regard de menaces yi nga xam ne tey jii ñooy peser sur notre pays mm-hmm. parce que aussi euh, nous, nous ne faisons pas que nous faisons de la politique nous faisons de l'économie nous faisons de la stratégie boo nekkee à un niveau booy booy boo yoree réew da ngay xam ni da nga amee njaboot <laughs> gis nga gis nga boo amee njaboot <laughs> boo amee njaboot sa biir kër parce que économie boo koy set économie c'est la c'est la gestion de la maison mm-hmm. gis nga noo gérer sa kër extrapolé ko rek ramane ko au niveau de l'état mm-hmm. am na loo xam ne boo ko defee sa biir kër kër ga tas mm-hmm. doo ko def am na loo xam ne aussi boo ko defee soo añee doo reer wala boo reeree doo ndékki mm-hmm. daa ko seetaat balaam koy def waaye parce que gi jaam sa biir kër mm-hmm. waaw boo gisee eh, eh, jaam sa biir eh, kër da nga koy rey ba pare doo reer li nga doon wax juróom ñaar fukki at ak ñeent ah, loolu mooy atum CFA da ko fa war a ah, génn man gëw ma ni ay ay survivance la xam nga euh, le euh, ce que li li tax d'ailleurs ñu mel na man euh, xam nga ñi naan ay ay ay en vérité bon ñun ñi nga xam ne peut-être ay ay dañu formé au marxisme mhm. xam nga la onzième thèse de sur Feuerbach bi mhm. bi Karl Marx di wax il dit les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde mhm. il s'agit de le transformer Karl Marx ne parle pas de révolutionner il parle de transformer et la transformation est un processus mais dafa maanaam booy booy booy soppar ñi soppar ñi ak dog bokkul révolution mooy dog man nga dog diggante nangam nga naaw wala nga wala wala nga jalgati ko. wala nga jàllar bi ko. Mhm. maanaam jàllar ba mooy jël li woon ci suuf nga yëg ko ci kaw. Mhm. xam loolu mooy révolution. Mhm. mais addina simple wul noonu. addina da ngay jékki rek ci benn fan nga soppi ko déedéet. surtout ay nit. yow dund am ay habitude am leneen am leneen am leneen. am leneen donc le cas du Sénégal. Euh, dama koy intégrer man en tant que sénégalais. Mhm. parce que du ma nekk rek l'africanisme comme ça en l'air parce que en théorie c'est facile. Mhm. Guy parce que on est passé là où tu es passé. Mhm. ah jaar jaar nañ foofu. kon mu ngi mais mais euh, avec la vie. avec l'expérience avec les relations dans le monde dañuy dem ba mujj gi léeg gis leneen ça te fait sourire nga ne ah. c'est bien. Euh, je l'approuve su ma ko gisee dama koy engrais d'ailleurs sax dama koy xaw dama koy supporter. mais je me dis bu ca kanamee xëy na. Eh, dana jékki mu ne ah écoute. non <laughs> ñaanal ma jàmm Youssou defaat kii ñaanal de sagesse quoi. voilà voilà yan nañu may gudd fan ak wér. amiin dem ba ca kanam mais je crois que li ñuy wax daanaka benn la. Mm. mooy comme j'ai daal ñëpp d' accord nañ ni que. lii mënul continuer. parce que bàyyi ñëpp bàyyi ñëpp euh, parce que président Macky euh, Sall d' accord ci. si si si ah, non non fan la ko waxee. fan la ko waxee defal nag defal nag. Macky Sall mm-hmm. fi ñu fi ma jaar fa fa la jaar defal naag defal naag rek defal naag defal mais xam nga dafa am niveau de responsabilité boo xam ne boo fa jaaree am expérience boo xam ne traversé nga ko euh, dangay def ndànk parce que économie rapport de force la mm. boo nekkee nag koo xam ne ku néew la wax daa leen fii Sénégal mm. li ñu fiy généré ci ay richesse ci année maanaam muy financé état bi ñu taxaw ci boo jëlee lempo yi jël li ñuy yónnee bitim réew nangam nangam weesuwul 4000 milliards taxul ñu mën a gedd voilà boo jëlee sa mi ngi booru 10 000 milliards wala ëpp na ko mm-hmm. donc la ca des fu mu jógee loo leb la. wala luñ na may. waaw donc boo meloon noonu nag ci àddina si. eh da ngay def ndànk. Mm-hmm. fëgg dëgg na taxul nga soppi àddina parce que boo fëggee ba fëgg boo dem nag sa danay xar rek. waaw ah, mais gars parce que mooy sax côté boobu aussi jar naa xalaat parce que Youssou mu ngi xalaat toujours relation privilégiée yi ñu am. te loolu itam dañ lay lebal. dañ lay lebal aussi eh, dañ ciy am ay intéret dañ ciy mm-hmm. lekk boo moytu sax mën lañ la cee ëppale. Mm-hmm. beneen bi itam dañ lay may. aide au développement boobu itam gis nañ ne presque lu ñu fa tabax sax doo am koo fa dugal tubaab ñoo ñëw dugal foofu ak seen industrie di produire di lekk est ce que côté boobu aussi war nañ mun a toog rek di continuer nii ne Sénégal ak France neexoon nañu ba ñett ñi waruñu tàmbali nag waxtaan boo xamante ne day leer nañ parce que yëf yi ñàkk a gis lu leer moo jaaxal nit ñi de li nga wax nii ñëpp d' accord nañ ne dina am bés mm-hmm. mais bés mi mooy keneen mën na ñëw France mm-hmm. comprendre ñu yëf yi soppeeku gaaw mais keneen mën na ñëw ñàkk comprendre mu gën a métti ci ñun ñu ne ñu génn leen su boobaa itam dañuy toog di wut solution nag waaw xam nga moo tax sevrage brutal boobu hmm? non non sevrage brutal boobu def naa kenn waxu ko mais nit ki ma nax ci principe soo gisee Sonko bi mu ne euh, Sénégal euh, bon man moom il pour mu génn CFA mais il n'a pas dit on va le waxu dafa wax sur le principe je crois que tous les leaders qui se respectent devraient aujourd'hui se prononcer sur ça. Faut-il rester, faut-il partir Mais il n'a jamais dit, moi je vais sortir le Sénégal de la terre de ça. En une semaine ou en group mois. Voilà, il parle du en groupe, mhm. en groupe, très réfléchi, mais on s'est déjà réunis. Maintenant, les outils sont en place. Comment nous Signature. Volonté politique. Président, si nous avons une réunion, si nous avons lundi prochain, si nous avons beneen lundi ba xaalis bi ñu soppi ko machine yi koy defar yomb na. mais ñi ko war a si ñoom ñëpp ils sont en difficulté mu mel ni am na jeu boo. xamante ne non non xam nga xam nga réew mu nekkul difficulté amul. Mm-hmm. France dañuy ëpp problème fop ñëpp a amit problème am suñu xaalis bi ñu génn ci ay problème mm-hmm. mais dafa am loo xam ne nii euh, ragal yëpp yàlla la. Mm-hmm. te dafa am loo xam ne nii tey li gi wax soixante dix ans après soixante ans euh, gars wax na ko. non il faut s'arrêter nga privilège bi ñu am ak relation ak ak France mm-hmm. euh, dañ ñu nax rek mm-hmm. soo ñaanee visa dem France ñu lànk mm-hmm. tey étudiants yi bëgg a jàngi France ñu ngi bëgg a dee France nee naa la defagu fi stade école bu mu fi tabax ay doomam a fay jàngee ñun li am ci Chine am ko ci Corée man lycée Limamoulaye laa jàngee man ba ma juddoo ba léegi man ay chinois laay gis ñu ñuy defaral ay coréen ay nangam mais France <laughs> France daal lu mu la ne coopération facturé la ko bi ko euh, euh, aide bi ñu wax ni mm-hmm. billaay su la ñu suñu joxee dërëm ministère boo ne fekk dugal na fa fukki tubaab lam leen di fay mu ñu koy dagg farax daal grand doy na mm-hmm. man daal je crois que <laughs> xam nga xam nga ah. dama j'étais plus jeune mm-hmm. baccalauréat laa doon nga lu ñu jox sujet euh, le le la colonisation mal nécessaire de Senghor <laughs> yàlla nattuma prof di ma doon interroger nekk tubaab. am nga problème. am naa problème may na la zéro. non dama ñëw xam man fit bi moom xëy na dafa ko judduwaale. tubaab ba ko cur ne ma waaw pont bi gaar bi affaire yi ni ko Senghor waxee rek daal. Mhm, mhm. colonisation lu baax la ma ne ko dara baaxul. <laughs> mu ne ma lu ci bon ma ne ko liñ perte te Senghor waxu ko. moo may jooyloo ba tey mu ne ma lan la ma ne ko la dignité notre dignité mu ne ma vous avez intérêt à modérer votre langage. <laughs> billaay foog naa ne am naa zéro comme ni mu ko <laughs> may xaw parce que moom jugé wu ma ci. Mhm. jugé wu ma ci li li. ci xalaat sa xel contre naa wala contre ma daf ma mhm. jugé ci man sama conviction. Mhm. parce que xam na ni kii di nègre man may tubaab. mu jàkkaarloog man osé maa wax non. c'est sincère. nii mu may wax daf ko gëm mais mais bañu ma ko. kon ñun foofu la ñuy waxee c'est-à-dire que ñun France. demal nañu fa ne dëgg la xëy na protégé nañu ci lu bari xëy na sax ñun dañuy continuer di ko soxla ci ay domaine loolu moom kenn werantewuñ ko hmm. ndax coopération bi kenn du ko dagg la ñu seq ak France moom la ñu nar a seq ak Chine di ko seq ak Maroc ak Égypte et cetera le problème n'est pas là bi mooy dafa am loo xam ne ni su heuram jotee heuram dafa jot mooy kuy nàmp da ngay fer te fer bi ma lay wax nii man nee naa sax léegi yemuma ci fa dafa am loo xam ne nii les mhm. africains dans leur globalité dañ ko war a jël nag muy des décisions yoo xam ne nii su mhm. suñu njëriñ rek la oser dire non ndax nag vraiment suñ demee kenn ñu mu kenn ñu mu amul fit bi dama la wax man il y a plus grave que le CFA mhm. APE yi ñii doon euh, ñoom gii doon xeex mais c'est plus grave que le CFA ndax APE mooy damay dugg sa réew indi sama produit du ma fay douane alors que ñun ku ñu ku ñu xam ne xam ne Sénégal usine biscuit sax amu fi ay boulangerie la ñu am daanaka kon ñoom lépp suñu ginaar Abdoulaye Wade moo ko fi tere 2004 il a fallu ce courage politique la pour que tey Sénégal autonome en ginaar ñi ngi fi wax ay ginaaru Brésil xaw ma ginaar États-Unis bëgg nañ fi ñëw tout ça là non il faut fermer la porte que liberté boobu suñu dirigeant yi war a am autonomisation bi ñu war a wutal suñu bopp xam ne fii man ñun mën nañ fi dara mais ñu jéem fi dara ñu mhm. nag ñu góorgóorlu tamit nag góorgóorlu bi mooy tey anacarde de Sénégal plus de cinquante mille tonnes ña nga ne di ko def ay bateau muy dem mhm. mais attends saaf ko dem jaayi ko ci supermarché français yi mais mënoon nañ ko te mu ngi nii lii ñu lekk Sénégal di ko saaf gi nga ci bi mu neexee mhm. anacarde da da euh, saal buy saaf dàqu ko loolu suñ ko paqueté woon ñu Sénégal gerte ko dàq ah ko waaw gerte ko dàq moom gerte bi saaf. nit gerte moo gerte bi saaf moo ko dàq pour wax la suñ góorgóorlu woon tey. ñu ngi ni président gerte gi. moo ëpp problème àddina. donc ñun fa ñu war a liggéeyee. il faut pas qu'on accuse suñ mais nag lu nekk xëy na dafa tey dafa sone dafa mel ni xam nga xam nga yàlla su suy suy defar nee na xaw ma day mel ni ku yàq jot na tubaab bi seen bopp ñoo jëfuural seen bopp. Mm-hmm. comme que nag ñun ñoo jëfuur damaa ragal ne opportunité la. ñun ñu dugg ci rek benn dirigeant wax ñaar dirigeant wax rek ñu convoqué benn réunion UA rek affaire affaire bi affaire bi taxaw plan bi taxaw mhm. kon euh, sagesse bi am nañ ko parce que vraiment aussi on on n'insulte pas mhm. euh, la France euh, nax nañu moom nax nañu ca nax ñu njëkk yi léegi nag ay xale yi xale yi ñoo yeewu comme que xale yi yeewu nañ ba war a mën a jël li ñu moom nañ ko jël parce que grand Youssou fàtt na ko léegi na ñun politique budget rek ngay dégg. senegal Afrique budget bi budget bi. doo dégg mukk beneen politique bi nga xam ne moo yor économie. Mm-hmm. muy muy monnaie. muy politique monétaire. mooy li ma doon wax soo xoolee sa koom dëggër ñu ne ah dëkk bi day xaalis l' argent ne circule pas lu tax l' argent ne circule pas. Mm-hmm. mais parce que yow leboo lebu ma. Mm-hmm. soo demoon lebi tey benn cent mille deux cent mille boo xam ne bi da lay wan ne yow un la koy lebal wala deux pour cent même pour nga jënd oto banque bi lii moom non seulement da koy fay ci durée bu yàgg mais mais durée bu su yàggee taux bi gën a gën a ndaw mais on aura le courage de consommer la consommation est bloquée mm-hmm. te li ko bloqué subvention état mënu ko dañoo xamante dëgg l' état ne peut pas aller subventionner partout te mm-hmm. flexibilité monétaire mm-hmm. ci lañ koy amee te yow yaa ngi doon wax ne tey su flexibilité monétaire amoon mais tey jënd gerte gi dootul doon problème parce que béykat bi ci boppam day dem ba comprendre que ne bii sama xaalis temps lay jar kon instant bi ku ci jaay gerte lii nga mën a am mais fekkante ne flexibilité bi amul nga ne ko deux cent mille neuf deux ba mille neuf cent nangam deux cent francs daal deux cent francs CFA la loolu changé wul ñoom ñi nekk ci ci ci structure yi ñoom ñoo la gën a xam ne flexibilité monétaire bi te it li tax leb banque neexut benn xaalis bi doyul ci banque yi wax na ko mm-hmm. bërki dem Sénégal dem na wuti mille milliards xaw ma ci mm-hmm. eurobond mm-hmm. bi ma benn télévision étranger laajee ne mais ma attends moi je vois les pays sotti ma ne ko mais suñ dajalee BRVM la fa nekk lépp su Sénégal demee lem 1000 milliards mënu ko faa am donc il faut ñu génn mm. on a un problème de trésorerie avec cette monnaie là mm. te it pour cent ci banques yi su néew ba néew mm. mais loolu tamit mënoo faa dem di jël ay milliards ay cent milliards di ko jënde gerte ñu naan la ay 7 pour cent parce que banques yi duñu may état du Sénégal ah suñ ko lebalee teg ay bor kon soo xool politique monétaire boobu nga xam ne dafa dafa dafa paan man loolu mooy sama problème te politique monétaire kii géré xaalis bi moo ko moo koy tëral te ki koy géré mooy tubaab ba fa toog daal ne sama veto suñ ne ah nañ wàññi taux d'intérêt yi ba un comme ça banque yi ci biti mën a leble deux tubaab bi na déedéet mhm. wóorut ndax loolu kat mën na nasaxal xaalis bi mhm. te kon xaalis bii kat France ci la dépendre mhm. toog leen trois mhm. wala ngeen toog quatre mais xaalis bi ñu la lebal balaa egg société générale ba ca mbedd ma wala business ba ca mbedd ma mais settee taxaw ba huit kay mu teg ca dara muy huit ak neuf léegi sax ñoom dañ ñoo yeb ba yóbbu ko douze ak quatorze parce que dañ naan la ñoom comme que léegi ñoom seen garantie mooy yow liggéey sax da nga indi sa bill d'installé ñu ne yu Sénégal ku dafa yomb du a huit dama la lebal a rapidement est-ce que comprendre nga la wax c'est-à-dire que tous les risques encourus mm-hmm. soo ko boolee dugal ko ci biir taux d'intérêt bi mm-hmm. mais fatalement day dem ay kato mm-hmm. donc ñun li ci laxasu moo bëri borom kaale suñu koom bi c'est peut y a trois jours y avait la maa ngi seetaan gis gars yi di wax ne wooy le financement des PME ma leen bu leen sonn le cadre institutionnel le administratif gi nga liñ ci bind Sénégal pour la gestion protection des PME développement de PME mm-hmm. mais xam nga koy fere ne financement kenn du ko réglé mm-hmm. kenn ñi mu fa aventure non parce que y a pas de politique monétaire mm-hmm. may sa ci dellu si magay gay parce que fexe nañ ba tey liñ fi waxtaane yëpp nga xam ne mu ngi jëm ba léegi ci CFA mooy rek ne loo liggéey ci réew mi ak loo fi soxla da nga koy transformer rek mu nekk CFA léegi nag boo buggee di transformer te créé woo dara aussi di continuer di gën a jafe ci fànn woowu aussi vraiment politique monétaire boobu est-ce que loon ay waxtaan parce que balaa ñoo mën a def agenda wala mhm. ñu génn wala ñuy laaj fu ñu jublu mhm. il faut quand même ñu xalaat def proposition te proposition boobu aussi dafa mel ni amagul wala boog unanimité amoo ci hmm. Ousmane jërëjëf li nga wax am na solo hmm. man dama jàpp ni monnaie il faut nga régler ces problèmes économiques monnaie bi ñu door a ñëw may la force hmm. des fois moo bi mën na dimbali comme ni ñu ko waxee ñoom ñëpp mm-hmm. pour que nga gën a amplifier li nga mm-hmm. mais léconomie économie réelle il faut nga investir foofu mm-hmm. te nag tey euh, malheureusement il y a une défaillance à tous les niveaux dans nos pays regardez la qualité des projets yi suñu gouvernement yi su ma suñu gouvernement yi je parle de tous les pays de la zone franc de finance regardez la qualité des projets souvent c'est des quoi c'est des projets d'infrastructure euh, dans le domaine ludique le jeu maanaam euh, pomi et cetera dans tous les pays soo soo demee Togo loolu ngay dégg nga dem bene loolu nga gis. Mhm. au lieu ñu transformer l' industrie au lieu ñu transformer les matières premières au lieu que ñu daal di dem def ce qu'on appelle des industries de substitution aux importations. Mhm. mooy couche couche pour bébé yi ñuy ñuy consommer pour suñuy doom. Mhm. mais ba tey ñu ngi koy importer. est ce que c' est normal ça alors que le coton est là à Tamba. mais quelque part il y a une défaillance collective. En termes de transformation. En termes de transformation et en termes de politique économique de manière générale. mooy li nga doon wax léegi waaw effectivement waaw tëj na mais mais mais tey. moom oto yi sax xaw ma ndax mu ngi dox ba léegi. mais mais mais mais tataay tataay Ablaye c'est ça mais yu bëri yu bëri tey ni parce que maa ngi jéglu mënuñoo liggéey. je suis désolé hein, de le dire ah. man nekkoon naa vous l'avez rappelé tout à l'heure non rappelé woo ko tey j'étais un ancien de la banque ouest-africaine de développement BOAD pays yu bari la woon dañ daan dem di évaluer des projets un peu partout mais franchement da ngay lebal nit ëllëg si bari ñu ne la eh, il est insolvable mënatut a fay mm-hmm. banque centrale bi nga gis nii jéem na ko avec euh, Bani que vous avez connu là l'ancien gouverneur Konan Bani Konan Bani ñëw ne daal di ah il avait de la personnalité ce monsieur mm-hmm. daan il faut que ñu Friedman bi bari wax noonu nañ bàyyi loolu te ñoo investir dans l' économie réelle. Hmm. xam nga lu mu def jël xaalis bu bari def ko ci ay BRS. banque régionale de solidarité war hmm. ngeen ko xam. Hmm. te banques yooyu dañoo daanu. solidarité moom most a jur. mais solidarité boobu mais gars yu bari dañu daan koo ci lebal bu dem takk jabar. ëllëg suba mu ne la ah man de sama affaire doxul. yëpp créance douteuse. ñu provisionné ay perte banque boobu tëj na ñeneen jënd nañ ko. mais nag ndimbal na ca fekk loxol borom xam nga yéen ñaar xaw ma am na ku ci doon fàttali léegi Macron bi mu waxee ni. Euh, euh, su ngeen bëggee réformer man ngeen réforme réformer. Mm-hmm. wax na ko Burkina mais am na leen lu ko gën a garaaw loolu wax changé na les discours soo dégloo bu baax nee na mm-hmm. maintenant yéen ñëpp su ngeen àndee d' accord ñun France duñ ci opposé wu. Hmm. mais naturellement le président Macky Sall nan lay mën a ànd d' accord ak Alassane Ouattara ànd d' accord ak le président du Bénin et cetera. Hmm. kooku ça veut dire que pour moom il n' est pas prêt à céder sur ce plan là benn. Hmm. ñaareel bi man dama jàpp ni euh, keroog maa ngi leen naan dama tase euh, les services de la banque centrale. bind boo xam publier naa ko sax temps yi ah. parce que bi débat bi jógee laa ko laa il faut ma publier ko par acquis de conscience. j'ai publié ça. dama leen a posé benn question boo xam ne ba tey répondre ñu ci mais garantie de convertibilité muy cinquante pour cent yi ngay def fii mais hmm. loolu am na lu muy jëriñ kay xanaa su problème amee hmm. mais ça je crois yaay wax léegi tout à l'heure problème Afrique centrale hmm, mais Afrique centrale tey demoon nañ ba dañuy dévaluer ma posé nañ question la question suivante mais suñuy dévaluer mbaa da ngeen wax pari pari ñu fay parce que ils nous ont garanti quand mais ba tey defuñu ko ba tey ils ne l'ont pas fait donc ça veut dire que garantie boobu c'est d'un côté mais pas de l'autre garantie boobu je ne suis pas sûr que du point de vue économique mu doon lu am solo maintenant leneen li ma ci yokk rek pour pour terminer mm-hmm. Mm-hmm. Euh, dama am benn benn xisa bu ndaw bu ma vivre BOAD euh, dañu un jour dañu recruter benn cabinet boo xam ni c'est un cabinet qui devait venir de la France pour def liggéey boo xam ni normalement africain yi mën nañ koo def mm-hmm. expert bi ñëw ñu waxtaan ma ne ko mais yéen pourquoi ngeen di ñëw di def liggéey ñu mën dem def mu ni ah non mais vous savez yéen ñu tànn ah. c'est un expert français. Mm-hmm. ma ne ko ñoo leen tànn mun ma oui ñoo leen tànn yéen tànn mais mieux encore que ma ne ko oui ma yéen saa bu ngeen jëlee un cabinet ci ñun fole en France même suñu bëggee yónnee un africain mu ñoo def liggéey yéenay bañ. ni non du ko man non vraiment il faut un français non attends vous rigolez donc mooy loolu hmm. donc il y des choses yoo xam ne hmm. war nañ ko xoolaat ci sunu biir moo hmm. tax man que Italie wax ou bañ a wax comme ni ko Guèye waxee man c'est pas mon problème man j'ai écrit sur ça dans le journal Le Point je crois lii na depuis trois à quatre ans bind naa tout à fait on ne les a pas attendus donc tey c'est pas parce que am nañu problème au niveau de l'Éthiopie am nañu problème également au niveau de la Libye mhm. parce que Libye euh, ñëpp ne l' euh, l'ancien président Sarkozy mhm. moo indi problème yi fi am que tey dañuy dugg ci débat ba man ça ne me concerne pas mhm. c'est un débat entre eux nous on a un débat avec la France et ça s'arrête là maintenant dernière chose bi maa ngi jégalu ci euh, dans les dans les dans difficultés am na difficulté bu ma fàtte woon mooy la corruption xam nga les mécanismes monétaires la mhm. dañoo wax la libre circulation des capitaux mhm. mën ngaa jël loolu neex yóbbu France un rapport de Thabo Mbeki a montré que chaque année plus de cinquante milliards de dollars partaient au niveau de au niveau de au niveau de l'Europe mhm. mieux encore les bénéfices là sont facilement transférables vers ces pays là raison pour laquelle on a des taux de croissance qui certes sont assez élevés. Mm -hmm. mais soo gisee la quintessence de ces taux de croissance là. day dem ci biti ni muy def day dem ci bi moo tax ba chômage bi mënuñu ko résoudre. dernière chose enfin ma foofu laa jeexale Ousmane nga bay ma ko. Mhm. man nag je crois que il y a des exemples attention xam nga wax naa la léegi ne la man sama xol nu fi juge sama xel. il faut un plan plan boobu nañ njëkk a génne France ci tur wi génne ko ci kii yu bari ci mécanisme. Mhm. mais Serigne Touba il avait déjà donné l'exemple depuis 1900 mm-hmm. avant 1927 mm-hmm. mais Serigne Touba mais xoolal li mu def bi mu français bi waxee da ko ni non il a dit non déedéet d'accord uma ñu ni tu vas mu exilé wu pendant sept ans au Gabon ensuite trois ans en Mauritanie ça fait dix ans mm-hmm. mais bi mu dellu see qui a gagné aujourd'hui entre les deux mais c'est Serigne Touba qui a gagné la deuxième ville du Sénégal mm-hmm. benn même ndox Serigne Touba est un visionnaire ndox mais xoolal ndox tey jii mais ndox yow sa ennemi mën naa def li muy def ci ndox mi mm-hmm. mu yàqal la lu bëri mu ni mm-hmm. man samay propre forage lay def a l'époque il avait une vision donc moo tax daal euh, Ousmane visionnaire daal ak euh, visionnaire daal ma dama bëgg des visionnaires courage Euh, courage politique. esprit d'initiative a euh, un esprit d'initiative hmm. des gens yoo xam ne aussi. Hmm. dañuy sacrifier wu pour les générations à venir hmm. man loolu laa bëgg. surtout loolu nag waaw surtout loolu. je crois moo fi manqué actuellement moo fi manqué actuellement. il faut ñoo xam ni danañu mën a sacrifier wu pour que suñu doom yi ñëw ni ah. taarix de. bàyyi na fi kenn koo xam ni. mas na jël de Sékou duñ ko fàtte abadan ba muy génn rek à l'époque sonoon na mais gis na ko voilà ma ngay gay voilà gi maris waaw ci garantie bi nga di wax ne hmm? France day garantie mhm. France garantie dara uh-huh. Youssou France garantie wul dara Maysa la garantie n'existe pas nga xam nga lu tax dem leen jàng yi mais téere bu mujj bu ndong sàmba si la bind hmm. ak benn journaliste française Fanny Pigeot hmm. parce que réew booy garantie yeneen réew dafa war a feeñ ci sa budget da nga war a feeñal ci sa loi de finance mais atum 2019 mhm. maa ngi prévoir en cas de wuyaay yooyu mhm. Mhm. pour juróom-ñetti réewu UEMOA bu ñu kiiwulee man naa leen garanti sangam ñoom dañoo génnee benn argument boo xam ne argument bu bees la ndaxte mosuma koon gis avant dañoo dem éplucher les lois de finance françaises xam nga ñaata la ñu garanti bu ñu génnee fii yéen ak ñi ñuy déglu dem leen gëstu loolu ndaxte booy garanti. Mhm. da nga ko war a prévoir budgétairement. Uh-huh. dem leen xool les lois de uh-huh. finances uh-huh. françaises. Mhm. non non non parce que. mais c'est le compte d'opération au trésor français. c'est ça la garantie. c'est le compte d'opération c'est ça la garantie. déedéet du loolu rek. maanaam bu nekkul woon du loolu rek mais mhm. dem leen xool après xëy na dinañ tasawaat benn ñaareel bi mooy France ses parts de marché en Afrique. dafa wàññeeku de 2000 à maintenant de 10 points à 4 points maanaam France dafa nekk ci jafe-jafe. Mhm. donc France du génn. Uh-huh. ci franc CFA wala ci UEMOA. Mhm. ci jàmm ak salaam. parce que marché bi mu am absolument mhm. te franc CFA bokk na ci. li ko may voilà li may li mu am. bu ñàkkee franc CFA ñàkk leneen ñàkk leneen. part de marché wom day daal di gën a daanu. léegi nag musuñu génn musuñu gis ci àddina jàmm boo xam ne. ñu ne jaam boobu dafa tekki mhm. maanaam dafa prospère mhm. amul mhm. jàmm boo xam ne dafa prospère amul ñun ci nooteel la ñu nekk la prospérité est sur la voie de la libération nationale maanaam jàmm lii tax mu tekki mooy mu génn ci nooteel fi may daanelee mooy bu dee économie jëmm la maanaam yaram la mun nañ wax ne koppar mooy deret bi sa deret doo ko dénk keneen ak ni mu munti mel sa deret doo ko dénk keneen mm-hmm. donc sa koppar doo ko dénk keneen mm-hmm. ñun li ñu war mooy moom suñu bopp mm-hmm. ci fànn yëpp rawatina ci koppar si may daanelee mooy Cheikh Anta Diop daan na wax ne ñun dañoo aliéné aliéné boo xam ne dañoo jàpp ne la vérité sonne blanche maanaam dëgg tubaab la gis nga continuer di fi bàyyi ay franc CFA ay Auchan ay Carrefour ay base militaire française ay ñuy dem di wësini France di dem di vacances ci France di continuer di jàngale suñu école France ban message la ñuy jox suñu doom. kon CFA du fi mën dëgg tubaab la. donc xeesal du fi jóge leneen ak leneen du fi jóge. donc c'est normal que su ñu ni neen kii bu ñëwee nit yu ñuul yi duñ ko fulal. Mhm. parce que njiit yi defuñu fi loo xam ne dañuy fulal mhm. jëmmal doomu aadama bu deram ñuul. kon yëfi daal ci ñun la war a tàmbalee. absolument après door a dem ci ñun parce que problème de mentalité la. absolument waaw ci fànn woowu yaakaar naa mën nañ cee jaxal émission bi Youssou. waaw waaw ci bëgg yokk rek. Hmm? mooy euh, euh, ñun ñëpp li ñuy wax daanaka benn la xëy na nañ koy defee. Mhm. la ñu la ñu la ñu la ñu. foofu daal yoon yi ñoo yoon yi ñoo xaw wute. Mhm. bii bu gaaw la mais mais mais lenn dafa am. Euh, le patriotisme maanaam bëgg sa réew. Mhm. ci ku nekk ci ñun mi ngi ci yow. waaw ah, xam nga lu ñuy wutale. mooy nag euh, na ngay defee sa patriotisme. la mooy mooy nité bi. Eh, waa ji doon na wax mu ni ah bëgg dem taxul dem de mhm. mu ne damay tax a dem waaw ah, waaw waaw <laughs> sama sa defe naa sa bokk la waaw kon nag eh, am na loo xam ni mm. mer ba fajul daan mhm. mer mhm. fajul daan jël bi leneen mu gën a ñëw mm-hmm. am na loo xam ni eh, da nga koy fannoo mm-hmm. ñi nga digaaleel dañu am doole mm-hmm. ñi nga digaaleel faagaagal nañu ku la ëpp doole Sékou Touré bëggoon na Guinée lool waaye nag am na cay jamono. Oh, du xaalis ba ñu fa tuur rek moo yàq lu mu doon liggéey. Mm-hmm. il a fini par être un dictateur parce que il fallait moo tenir. waaw waaw moo moo moo tax daal. Eh, am ñàkk doole. Mm-hmm. mooy tooñ bi jëkk. mooy tooñ bi jëkk waaw. moom daal eh, man daal noonu bon xam naa nag ñu nag. Eh, ñi nga xam ne xëy na buñ bañ amee seen at xëy na ñoom la ñu meloon mën na am ñu ëpp leen chance ñoom waaw ñoom ñu ëpp ñu chance parce que <laughs> woon chance bi uh-huh. toog ay ñoo xam ne magee nañ <laughs> ñu mm-hmm. eh, na mm-hmm. mm-hmm. fekk na ñun la woon suñu biir xam nañ ko mais ñoom ñoo ñu ëpp chance sur ce plan xaaral wax gay <laughs> waaw l'échec de cette de financement là mais ba tey ah tu sais que sous le régime PS il y a 17 institutions financières englouties absolument ba ñuy gas Sotrac di ko di ko di ko suul fii la woon parce que copinage la voilà ñoom politiciens ñoo nam ay directeurs yoo xam ne ni amuñ benn compétence. tout à fait ñu euh, dem ci banque yi ñoom lañ xam ndax ñoom ñooy xaritu président ñu joxe xaalis. Mm-hmm. et c' est plus grave. Mm-hmm. Euh, en dehors du Sénégal ah. tout à fait mm-hmm. au Nigéria par exemple modèle de financement de cofinancement boobu. mais fekkante ne xaalis bi dañ koo jox. ku ki ko ki nga xam ne soo fekkee tey Sidi Lamine Niass yor Walfadjri nga lebal ko mais mais du ko yàq moom dafay liggéey mais koo xam ne nii xaritu président nga jox xaalis mais danaan du ma ko fay donc loolu ci booy problème bi loolu wax léegi ne boo amee baax dañ koy dénk waayam bañ ko dénk sa waay voilà bañ ko bañ ko dénk masala bu baax nag daal ñu ngi lay xam ne chaque émission sa baabu Issa Diallo maa ngi lay dégg naa la ma kay la maa ngi lay gërëm jërëjëf ñu ngi lay gërëm di bu baax sant Cheikh Tidiane Diop ca ba ak équipe am ñu ngi leen di gërëm di gërëm di sant ñu daan teewlu wasalaam jërë ngeen jëf